mu sunna sunna rafet na di musaafirin ñeel aji tukki maanaam musaafir arbaatu burudin xayri aasin koo xam ne du moo aji mooy ca tukki mu tukki bii maanaam bii ca tukki ba wallaahin ak koo xam ne du moo aji foowe arbaatu burudin koo xam ne dox ba mat na ñeenti burut nga ne ko xanaa ci jéeri rek mu ne wala bu baax ren doonte ci biir géej la woon itam zahaban ci dem gi rek la ñuy compter duñ boole dem gi dikk bi wax boo xam ne xusidat dubloo fët ne ko duf atan mu di benn jëñin doo dox ab diir toog ay fan demati waaye day fekk da nga jóge fii rek jubal fu nga jëm mun na mun lan in in adda in adda de waaw in adda su fekkente ne jéggi na al balad yu ko jóg dëkk bu mag bi am njëndi daal nga xam ne fa la jóge bu jéggee al basaatiina tool yi dëkk ba tool yi nga xam ne dafa jóg ci dëkk ba almaskunata li ñu dëkke doonte dëkk ba saxul itam ay jamono lañ fay dëkk di buddi seeni xayma dem feneen léegi bu fekkente ne nit ki day dox dox wàññi dox bi muy dox dox wàññi bi ni mu toll burut mooy jëm u bari bi mu ne benn burut ñeenti farsax la farsax ñetti mayel la mayel bu ko seetee ñaari junni xasab la mooy junni mètre mooy lan kilomètre ana mètre bi ci ban réew lañ ko déposé ci ci nooru Europe ñu konte ko muy mètre muy convention boo xam ne adduna bépp d'accord nañ ci muy nattukaay du ëpp du yées bu ñu ko seetee ci nit ku digg doomu ñaari xasab rek la xasab mooy lii bu dee ku njool ñaari xasabam day ëpp mètre bu dee ku gàtt ñaari xasabam du mat mètre gannaaw nag nit ñi dañoo ëppante lool te mënuñoo sàkk nit ku dul dee ne diw ñaar xas ñaari xasama loolu moo tax européens yi def istilaax boobu calculer téeméeri centimètre nga xam ne centimètre bu mu fabee dix centimètre cube bu mu ko solee ba mu fees ci ndox moo xam ne du ndox géej amul xorom amul dara lu ko jox muy maawul ma ndox mu sell nga xam ne amul couleur amul xet mooy doon kilo ñu natt ci itam kilo ndox it tollale kook litre muy dix centimètres cube mètre boobu mooy moom la ñu déposé noonu muy kon takk boo xam ne moo gën a fixé moo gën a wér nangam xasab ah fuqahaa yi nag lu jiitu loolu ñoom waññi nañu xasab bi nga xam ne moom lañu jàpp ñaaram maanaam ñaari junneem di may di indi ba indi peppu orge bu ñu ko tegalee nangam lay doon mu soog a tolloog subur subur boobu nangam mooy xasab ga axirihi loolu itam day indi complication waaye li nga xam ne nii la ko ñi natte muy convention boo xam ne àddina bépp la ñoo ko xam mooy bi gën a fixe kon mën nañ ne kon ñaari junni xasab mooy kilomètre kon farsaq farsaq parasan ci tubaab ñeentam mooy bërit bërit ñeentam bu ñu dooree ñett ci ñeent maanaam farsax ñetti mil maanaam ñetti kilomètre muy benn burub ñu dooraat ko ci bar burub yi ñu am ci ñeent arbaatu burub yi ñu dooraat ko ci kat li mu nu jox mu ne moom ñetti junni ak juróomi téeméeri xasab la dégg nga mu ne bu fekkee ne ci waaye yëpp yu yàgg la woon bu fekkente ne ci dox la burub bi ci ci jamono bi mu koy dox ñu ne ñaari mal marxala la maanaam kon mooy doxub ñaari bis bis bi ñu ko waxee te tuddu guddi mooy bëccëg bi rek mu jeex bëccëg bu digg dóom boo xam ne nekkul bu guddi trop comme tàngaay wala bu gàtt trop comme temps sedd mooy nag ma àllay la fihima la bëccëg ak guddi ci doxu gëléem gu diis gëléem goo xam ne sëf nañ ko ba mu diis yooyu yëpp bu njëkk résoudre gu ñu woon problème bi ci ni ñu waxee mètre nga dal di xam kilomètre li mu doon rek nga dal dina xam kon ne gannaaw farsax mooy ñetti kilomètre benn farsax ñeenti farsax mooy burut nga dal di dóor ñeent ci ñett trois fois sept vingt et un deux mille cent daanañu nattale nag ba ñii ne ñeent kilomètre ñu ne juróom fukk am nañu dem ba juróom ñett fukk kilomètre juróom ñett fukk kilomètre waaye fii xam nga li mu wax moom doxu ñaari fan bëccëg guddi ci gëléem bu diis léegi naqari naa xam ndax ñii tukki ci gëléem léegi ci suñu réew yi fii du bari xëy na ba tey waa désert ba yooyu daal di ko xam nga xam ne kon bu ñu tàmbalee ci xëyra aasim koo xam ne du mu moy du mu aju moy ca dox ba nga xam ne kon bu dee koo xam ne dox bi doxu mooy la fii ba jaam bi am jaam bu daw wala koo xam ne kilifaam daf ko tere muy dem wala muy dem ngir am nu muy dajal di naan sàngara wala leneen lu bon du wàññi te gam dina kooku la ñuy julli sax bu dee julli du wàññi de du foy itam ci dox bi ngir xam day promené ci rek maanaam tourisme lay def du wàññi julli waaw mu ne kon bëri benn bu ci nekk mooy ñeenti farsax farsax mooy ñetti kilomètre kon ñetti kilomètre bu ñu ko multiplier par 4 3 par 4 12 12 ñu multiplier ko par 4 dégg nga ci loolu nag ñu bëgg waaw gannaaw sunna la waaye du farata ñu seet ne wàññi te amuloo doxu wàññi doo am julli nga am doxu wàññi yam ca képp nga mottali dangaa bàyyi sunna waaye amuloo bàkkaar te am nga julli ñu nattale ko nag loo xam ne day xëy na mën na ëpp sax waaye yées moom mënu koo def loolu mooy ñu indi ci juróom fukk kilomètre ba suñu indi juróom benn fukk dégg nga bu dee ci géej ak bu dee ci suuf si yëpp mun nag dox boo xam ne dañ koo jublu def atan te fasuloo yéene ne bu ma demee dëkk sàngum kat dama fay toog ñeenti fan soobe jàll wala dellu fi bu fekkente na ko def bu fekkente nag dem na ba àgg yàlla dogal mu def ko fa bu ko fa amee day daal di motal waaye bu fekkee def ko yéene bi mu daataan dem bu àggee dootum motal dootu kii bu àggee dootum wàññi day motal waaw kay mu ngi yoon day wàññi bu àggee nag danga xam ne dafa xamoon dafa yéene woon bu àggee toog ni fa dana fa am ñeent fan wala juróom moom bu xasee àgg rek dootu wàññi fekkee nag ñuy dem jubluñu faa toog yooyu dafa bëgg xëy na yaakaar day dem dellu si wala xamu ci dara muy wàññi bu àggee di wàññi ba mu wóor ko ne dana fa am lu ëpp loolu mu nekk tey bu fi toogee ñetti fan mu dal di feeñ mbir moo xam ne xam na ne kon du mën a dem ëllëg xam nga day dal am ñeent fan day dal di tàmbalee matal
yéen a ji moom yéen a wàññi booy génn kër gi wala booy julli rek
waaw booy julli mu ne su fekkee nag in àddaan dem jéggi na al balad yi ko di dëkk bi dëkk bu mag kooku na weesu tool yi dëkk bi yépp bu fekkente ne maanaam rek na génn ba set li borom risaala waxee woon bu nekk ci wetam wala ci ci kanamam dara lu bokk ci luñ mën a calculer wala ci dëkk bi xam nga ni fi nga xam ne moom fi jumaa di doye moom na fekk ne donte génn dëkk bi yëpp it lu mel ne dex wala yoon wu rëy xaajale ko kilo bi te amul yeneen kër yu mu dendal doo doo mën a juma julli jumaa bu jullee jumaa du doy naka noonu kii wàññi itam kii wàññi nag moom bu àggee bu bu loolu desee moom te ñu mën koo limaale ci dëkk bi moom du wàññeeku bu ko fekkee ne ci diggante boobu la jullee day matal ba ba te muy génn loolu lépp ñaari kii yooyu daf cee taxali ko dégg nga mu ne almaskunate yi ñu dëkkee donte ay nit di waa ko yi wax gati dañuy dikk dëkk fii bay ba tool yi ñor ba ñu jaay daal jëm seen yoon feeg noonu noonu nit ñi dëkk nañ fa nekk nañ fa te ñu ngi dëkk ci dëkk bii rek dana leen wees soog a mën a wax watu uwilat jamte jamtalee fat na ay dan tam ala mujaawazati salaasati am yaalin ci na jéggi lu mat ñetti kilomètre bu fekkee na dox na lu mat ñetti kilomètre di xareeti jumaati ci dëkk boo xam ne jumaa war na fa bu fekkee ne fa mu génne ak fi mu jullee mat na ñetti kilomètre ndax dëkk bi mag na dana wàññi waaye loolu am jamtal la
mais mayel bi du ëpp na kilomètre.
mayel nag fii moom ni mu ko waxee kilomètre rek la si ma mayelu fii anglais yi moom ëpp na kilomètre ni ñu ko calculé defe naa ne am na benn règle de trois duñ koy convertir man mi miinoon naa ko waaye mooy nekk kilomètre ëpp na kilomètre ëpp na kilomètre te matul kilomètre ak genn wàll ëpp na kilomètre te matul kilomètre waaw yooyu waaw fii diggante yooyu mu ni wala amoon yu ko gàdd mooy ki nga xam ne fa mu dëkk dëkk kaw bu bu ndaw nekkul xar nekkul madina xillatahu na génn gàddam ga dégg nga mu ne néeg yi rek bu génnee néeg yi rek mën naa daal di tàmbali wàññi wan fasala fekket na xayruhuma pour ñoom ñaar wan fasala maanaam donte fekket na fa mu dëkkoon rek moom bële bi bépp amoo bii bi nit koo xam ne dafa dëkk ci mu xunt wala mu dëkk ci mu doj wala dëkk dëkk soo xam ne amuñu sax ay tool waaw kooku moom bu faccee dëkk bëri jeex na mu ne ñeel na ko sunna xas mu ngi soog a ñëw de dinaa ngi faa indi xas rubaayatin wàññi julli guddi ko jóg ñeent rakka sunna la waxtu yësin bu di ko jóg waxtu aw faa'itin wala bu di aji faat fii fekkente ne itam dafa faatoon julli gi mënu koo julli fekk mu nekkoon ci dox boo xam ne doxu wàññi la bu ci bu ñu biseetee ba di ba di matal itam bu ko fàttali ko daf koy julli julli gi wàññi la ci dox mu ni wa in muuti yan doonte mool la woon itam bi ahlihi mu ànd ak ñoom bu fekkee ne musaafir biy tukki dafa bokk ci matlut yi mu ànd ak soxnaam day wàññi ilaa mahallil bati boobu muy dellu si ci bérébu bi mu tàmbalee woon dox maanaam béréb bi tàmbalee bi mu tàmbalee wàññi mooy fi mu génne rek nga xam ne bu dellu bu fi dellu seetee day wàññeeti ba ba mu fay dellu mais fi nga xam ne bu génnee rek bu ko tolloo daal di commencé wàññi bu demee day wàññi ba muy dellu si waat féeg toogul ñeenti fan yooyu ba dellu si waat ba ak si comme tàmbalee wàññi mu xam ne alayhi salaam génn na dox bi boobaa mu soog a dégg ko matal mu fekk ak bu foofu waaye laa aqal la du cay génn nag lu ko gën a néew maanaam du wàññi su fekkee ne dafa bëgg a dox lu manqué ñeenti burub wala mu fas yéene maanaam lu manqué ñeenti burub lu doonte benn kilomètre la ko manqué itam nga leen ko gën a néew dootu mën a wàññi lu mën a wàññi day matal mu ne nga ne ko faaw mu ne ah waaw dafa nirale ki dul mën a wàññi illaa ka màkk yi dara di mel ni ki aji ko màkka màkka wala ko nekk minan wala muddalifa ñooñu dana daañu si naan ci ñoom ñu wàññi fi xurujihi ci waxtu génnam li arafata jëm arafa dina ma aj bu génnee rek dana tàmbali di wàññi waaye waru juuxi ak itam ci dellu seem maanaam dox wàññi boo ko dee dox booy dem da ngay wàññi booy dellu si da ngay wàññi dama ngay agsi mu ni waru ju wala raajoon du caagéene aji dellu si nag lu duuniyaa ñeel lu yées dox wàññi léegi da nga jóge fii jëm géwul wala xaw ma sa géwul mat na loolu wala ëpp na ko da nga jóge fii jëm sama ñaar loolu ngay jëm na ci misaal nga dem waaye booy dellu si yow man boo jaaree Kébémer comme am nga sa kër Kébémer foofu ngay toog nga ñu seet sa diggante Kébémer yi fa nga jëm mëtatul mëtul wàññi booy dellu si te fas yéenee takk foofu doo wàññi dafay daal di mëtal
bi ngay dem moom mënul woon bi ngay dem jaaruloo fa da ngaa jubaloon Dakar wala da nga jubaloon Mekke wala feneen foo xam ne fa nga jëm te mat na doxo wàññi moom da ngay wàññi ba ba ngay àgg boo fa toogul ñeenti fan da ngay continuer wàññi bay wàññi ko bu fekkee nag da ngaa am yéene ne léegi boo jaaree Kébémer wala yooyu da nga fay tàkk da nga fay toog dootu wàññi boo ko yéenee rek dootu wàññi fekkente nag yéene woo ko nga dikk ba agsi fa nag yàlla dogal nga am lu war a tax nga di toog kon da ngay wàññi ba ba ngay àgg foofu fa nga ko xamee ne da ngay toog ngay soog commencé matal wala nga ne ko waaw toog bi ñuy toog foofu nga xam ne day du du dellu ci këram yi lu mu jógee du dellu lu gën loolu xanaa booba daf fekk ne dafay lu mun la ñàkk mu ne bal wala wu di see in doonte dafay yem foofa ngir loo xam ne lii na si yow fàtte woon na ko itam loo xam ne daf ko faa fàtte woon ومفهوم من أنه إذا رجع بعدها يقصر في رجوعه وهو كذلك كمفهوم من التعليل بأنه صفة المتقين
السلام عليكم عليكم السلام آه. شيء- شيء. waaw doonte dafa dellu woon itam يقدر في رجوعه وكذلك ما في من تدعوه dafa dellu si waat ndax am lu mu fàtte dëkk bu mu jóge woon la dellu ngir lu mu fàtte du tee mu ngi ci tukki du tee mu ngi ci tukki
dafa génn dem pare wàññi ko waaw fàtte si dara wàññi ko waat dellu si waaw bee dafa dellu si foo xam ne mëtul ndoxu wàññi wàññi mu di ko di fa toog bu yoon dafa dem ba mu yàgg mu wàññi ko waat ndax am na loo xam ne li daf ko fàtte mu ne wala yaqsuru raajiun bada safarihi min mahal saun kaana watanan am la li duuniha ay li duuni arbaati burudin li anna rujuhu safarun mustaqillun dañu seet rek moom it na mat arbaa burud bu ko manqué du tukkee wala si fiihi masaafir wa salaatuhu almaqsuratu fi dahaabihi qabla rujuucihi saxiixatun waaw waaw waaw hada in rajaa taarikan asafara waaw léegi dafa dematul waaw muy bal wala rajaa lil baladi li saafara minhu li shay in nasiya xam nga ne kon bu ñëwee bu fagee li mu fàtte woon wala mu di jël li mu fàtte woon day delluwaat mu ne nag wala aadilun lu caa génne aji jàng an qasirin waliis aji gàtt bilaa uzrin ci lu dul ngànt mu ne du wàññi koo xam ne dafa jàng wali si dox bi maanaam dafa dellu daal ci waam gu gàtt mëtu ñeenti burub jóge ca dem nag ci yoon woo xam ne bu fa jaaree dana mat ñeenti burub te ngànt taxul kooku moom du wàññi léegi maanaam ñaari yoon a fi nekk waaw ñaari yoon a fi nekk mu bàyyi yoon wële nga xam ne léegi ji moo gën a gàtt léegi waaw dem delloo yoon si bu gën a gudd.
yoon bu gën a gudd te du ngànt tax tax mu wàññi bu fekkoon ci nag ngànt tax nga xam ne sañu loo bañ amul pexe sañu la bañ la kon dina wàññi bila umr wala haa imun bi caag itam aji gëlëm du wàññi moom mu ngi jugoon fi jëm kéel warul wàññi mu réer nag dox ci doxa dox doxa dox loo xam ne mat na téeméeri kilomètre du tax mu wàññi wa taalibu raayin maanaam du wàññi itam taalibu ra'in aji sàkku ji lu ñu sàmm mooy ay gëléem lay wër gëléem bi xamul fu mu nekk mu wër dox na ba tàyyi du tax mu mën a wàññi lim dox bu fekkee ëpp na dox wàññi du wàññi
ndax mu ko teeloon a gis moom.
bu ko dal day wàññi ko te bi mu jóg xamul woon ndax xalaatul woon sax ne danaa dox dox wàññi xam nga li ñu doon wax yëpp yëpp tontu na masala xam nga ku doon laajat si ne ndax wàññi kii bi ngir coono bee tax wala yooyu xam nga li ñuy wax yëpp coono yaa ngi ci ndax ñu wàññi moom moom day ah, mu waaw ndax doo xam fu mu ne mu ne ko gis sax doo ko mën a jàpp nga dox lal ñaar fukki kilomètre loolu coono bi taxul toog fii la waaw ndax xam nga loolu day ñu feebar feebar feebar ko ba ñu wàññi ko kañ kooku mu gën a mën a sax moom lañ gën a mën a tax fi sax fiq nag daf ci am yoo xam ne fu ko xaw yi jàmbat ñoom fi ñu demee ba ne taw fi yun parce que loolu wóor na ne fu ne gëstu nañ fa xadis bu ne seet nañ ko seet waxi aima yi jiitu yépp xam ne amuñ fenn fu ñu ko wékk ñu soog a dellu si ci taab bi la ci bu daan boo ko daan fekkee- naa rek.
waaw gàtt na moom mooy waaw waaw gàtt na xamuñu lu ko waral waaye nii lañ sant nañ ko rek nii lañ dee nag léeg-léeg ñaare ñi nga xam ne ñu yàlla xamal baatin ñu koy xam Euh, léeg-léeg ñu xaw a dal ci fuqahaa yi tuuti na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu am na masal boobu ñu wax ne jigéen ji su teddee ba du nàmpal góor gi moo war a fay ki koy nàmpal dinaa am lu ci wax d'accord ji jam jam bi nga xam ne dañ ne bu boo jamee nit mu wér te ñaawalul dara waru ci li ma lay seet rek naan la ko war a daal kooku itam am nañu ci ay wax am na ci maam seen wax mu ne illaa an yaalama dara boo xam ne xat al musaafati masaafati ne na dagg masaafa bi xablahu ca la jiitu bërëb bi nga xam ne ca lay saxi moom aji gërëm ji wala aji sàmm ji moom it mu xam ne léegi dana jot fu mu mën a sàmmee balay àgg ci loolu di- diiru wàññi
waaw fii bi fii est ce que maanaam mënuñu koo jàpp ci comme ñii dem France yu mel noonu ndax nag xam nga dañu wuti alal dañoo tukki waaw dañu wuti alal waaw ñoom seen bopp xam nga daanaka dañoo am espèce su dañ leen jàpp comme xaar yu mën daal en quelque sorte te xam nga ñu dugal nii exactement maanaam bu ko xam ne moom xam naa ci gërëm bi sax mooy borom gërëm gréer bi wala borom alal bi réer bi ak ñoom li ñuy wuti ñoom it daanaka xamuñu fu mu nekk xamaguñ ku ne xam waaw xëy na sax bu fekkoon ne léegi de da nga faa boo xam ne kii da nga am bu la hébergé nga xam ne leer na ne boo jógee moom ca moom ba ci moom nga jëm waaw loolu sax xaw na leer waaw waaye koo xam ne xëy na moom xamaguñ fu mu jëm fu mu jëm moom daal dafa mën wuti wërsëg léegi waaw xamuñu ko bu mu toll nii ndax moom gis na dugg fii ok ndax xam nga buñ nee nécessité maanaam euh, dafay lu war ci moom ngir lu mu dundee borom gërëm ji dama alalam la te alal dana tax gannaaw dana tax a bëgg julli lu am kii la maanaam alal lu am maanaam place bu ñu ko teg la ci sharia ndax li muy njëriñal doomu aadama ah ki nga xam ne itam day wuti loolu mu mel ne ki alalam ji xamul fu mu ne mu ngi koy seeti kii itam li muy wuti xamul fu mu nekk ndax li muy wuti bu fekkee ne léegi yem na ci beneen dëkk boo xam ne àggul foofa te mën na fa am loolu mu dem mu mën neex a liggéey day toog. naam wuti naa ko.
mooy fii ci Sadak dafa am lu muy kii bi maanaam ki nga xam ne day maanaam maanaam day voyagé comme France wala Italie waaw kooku xanaa yéen a yéen a kooku yéen yéen a naan lu ëpp ëpp ñeenti fan kooku dafa voyagé.
kooku mën a topp ko am na fu mu jëm waaw.
te xam na fi mu jëm kooku moom musaafir la boo xam ne xam na fu mu jëm mu ngi dox doxu wàññi waaye bu àggee gannaaw day sax tuuti wàññi day matal te man ma jaaxal mooy te borom gileem bi moom moom moom gileem bi mu ngi Waaw.
xam nga ni moom li muy am
farata la daanaka ci moom moom dara moom kan ci kii ñu kii ci dem wuti xaalis moom Waaw.
day wuti xaalis boo xam ne xamul waaw parce que li mu ci moom dem déedéet maanaam dafa toog rek mu war ko maanaam comme am na ay war-war te war-war yi dafa war ci moom kon te war na jóg fàggu moom gannaaw fàggu moom lazim la ci ku nekk mu jóg ak borom alal ji itam xaraam na moo ci alalam noonu te amul benn illa loolu la ñu niroo kenn ku ci nekk bi nga jógee li ngay wuti xamuloo foo koy fekk foo koy fii ci Sénégal waaw ne wala yaqsiru haimun ay mutajaridun ala al ahli wal watani saahin fil biladi ay baladu yatayassaru lahu fihi al qut aqama bihi ma sha'a li annahu lam yaqsid Safara safara al al balad waaw moo tax du wàññi waaw xam nga kooku itam mu jar la ne wala tamit foofu bokk na teg moodu yi saaxun fil bilaad yi loolu yéen xootu ba tey mooy affaire moodu yi
mu dul ko
aqaam bi ma sha Allah li annahu lam yaqsid safara arbaat burud
yaakaar naa bu doon sax koo xam ne moom mas na faa nekk liggéey bu yàlla bi ñëw léegi fekk kooku moom xam na fu mu jëm moom am na fu ko tax a jóg moom fu mu jëm kooku day wàññi ba muy àgg bu àgg fas yéene sax nag dootul waaw waaye kii moom moom moom moom borom góyam bu réer bi ñooyam amul bu leen dañuy wuti daal li ñuy wuti nii itam te xamuñu fu ñu koy gisee jóguñu ngir dox arbaat bur bi bu ñu xam xam maanaam daal dañoo amul daal fu ñu jublu fu wéregum bu ñu demee nag ba sax ko fu nga xam ne fii mooy seen bërëb bu ñu del bu ñu ñëwee itam fa la ñuy delluwaat waaw kooku xam ne kooku mu safar la wala bu ñu jógee di ñibbi si ñu gis yoo xam léegi ñu ngi ci yoon bi waaw ba tey mu ngi wàññi waaw dañuy wàññi.
te ñu ngi ñu ngi wàññi dégg nga mu ni illaa an yaalama foofu nag beneen indi na beneen problème maanaam eh, borom gëleen bu réer bi ak módu bi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk xam nga xat al masaafati ne yow kat da nga dox lu mat ñeenti groupe xablahu maanaam bala ngay sax sax rek bala ngay àgg koo xam ne da nga fa mën a toog bu boobaa mu gisee dafa jóg ngir France lay dem xam kooku moom am na maanaam naqsat boo xam ne moom xam nga ne fi la jëm te xam nga ne mat mat ba mat na dafa wàññi kooku moom day wàññi ba àgg day wàññi ba àgg moo xam ne nag France bi ñoom lam fay nekk nag xamul
borom beneen gurée gi moom waa ji mënoon na génn fii rek day gis ko moom mu yéenewul dox lu mat arbaatu bur
kooku dem France su fekkee ne moom France la jëm. xamagul fu mu fay nekk.
waaw waaye yéene na bo boo fu mu fay nekk dafay toog dafay dafay moom dafa dem moom ngir liggéey yi kooku moom dal na yéene lu ëpp ñeenti fan bu fa toogee nag di matal ba nga xam ne léegi xam ne ne kat fii du fi mën a kii dara fii du fi mën tam xam ne nag du fi am ñeenti fan dana wàññeeti
léegi nag kon kooku mu doxam nga xam ne léegi dafa dox jëm ca foofu ñu liggéeyee waaw maanaam te ak bu waaye dox bu mu rek am ñe- weer ci yoon wala ñaari weer waaw li fekk ñu ngi dox di àll ba mu di dem ca fu ñu jëm day day wàññi waaw waaw day wàññi lu mu am ci béréb lu mat ñeenti fan waaw booba dafay wàññi ba bu jógaat wala mu yéene wala mu yéene ko fa dégg nga mooy illaa ñu alama rek boo xam ne moom aji dox jooju xat al masafat ne dana dagg déer bu mat bu man moom bu distance bu mat xablahu na njëkk comme ku tax a jóg wala comme yéen tax a jóg wala mun fajul fasilun du caa génn itam aji faj ci koo xam ne yenn fasiru dafa génn rek di xaar rufqatan seete maanaam mbooloo mu war a ànd itam mu mën a wàññi dégg nga génn na rek doxagum lu mat arbaa groupe groupe mu am lu mu war a àndal di leen fa xaar ñu ñëw nit boobu moom du wàññi ngay faaw mu ne ah illaa ngeen si ma ndare boo dogoon na nag di sëy ci dox doon xaaw wala sette set nga xam ne xam ne moom du fi am ñeenti fan ndax bu ñuy ñëw li day dem kooku dana di wàññi yow ñu am ñeenti fan wala muy ëjëba wa qataahu daggat na wàññi gi duxuulu baladihi dugg réew bu dellu see rek wala mu réer ba dugg fi wala mu dellu si boppam bu ne ca rax ci dëkk bi mu ne woon rek di mu dëkk dana dal di metam nga ne ko xanaa kooku moom daf fekk ne rek moom ci sagom la wala waaye moo doon doxee saw ne bal wa in du réexin doonte ngelaw moo ko puusoon rek ba mu gëlëm ba kañ a xaar fi mu dëkkoon itam rek dellu si na dëkk ko waaw nga ne ko faw mu ne ah illa mutawattina ka makkata ndare ku demee ni ki aji dëkke fi mel ni makka boo xam ne rafada fëgg na maanaam bàyyi na wàcc na sukk naa haa dëkkaayam boon fi kooku nga xam ne dafay def mu jaawara ci makka koo xam ne yéene ak safara tukki ñu dem Makka aqiba qada xaajatu yi dama xam xamee ni faj na aajam ba noppi te yéene ñu fa toog ñett bi kooka diggante bi mu toog bi dama ko fekk akul xabaar yéene ak safara tukki jóge Makka عقب قضاء حاجته يعني فجنا آدم بنطي تيين وفتوك نيك في كوكا بجر بدون فتوك كيف تكون فتوك نعم xam nga dañu ne woon wala mun fasil yonte war ut xatan ne illa an yajsima bi seyri dunaha wa qataahu doxul baladi bu tabee ci réewam ni mu newoon ni mu dëkkoon rek dana dootu wàññee mu ne wa in bireexi mu ne ah xam nga kooku mooy ki nga xam ne dootu wàññi mu daal di nag seet ci ne illaa mutawattina ka makkata jullit koo xam ne dafa dem ci def mu jaawara mel ni makka nga xam ne fa la toog koo xam ne moom rafada maanaam bàyyi na dëgg na maanaam wàcc na sukk naaha ak dëkkam waaw dafa faa jóge nag léegi dëkki feneen dégg nga war a jaa waaye mu dellu si naa bi yem bu ñu aji yéene safara dox tukki fa rek.
bi mu dellu si tànn bi si màkkal bi.
waaw waaye dafa tukki si rek. waaw.
misaal bi mu mel ne am bii moom dina daal dem màkk fa dafa jaaw.
waaw.
parce que ñoo dëkk màkkale.
waaw.
waaye léegi mu jaaw rek moo ko wéy.
waaw mu toog mu yàgg leen mu yëngu mu leen si jàpp.
waaw ma ko siiri maa ngi dem Inde wala maa ngi dem waaw.
ba defee léegi day nga dem fa. toog fa xam nga léegi yaa ngi matal. nga amaat soxla nag ndax toog xam nga boo dellu si waatee nga dellu si waat nag xam nga dafa waxoon ci mu ngi delluwaat ci li mu waxoon ne bu fekkee ne nit ki dafa dellu si waat ci fi mu dëkkoon te te sañu koo bañ donte ngelaw li moo ko fal ba mu ñëw fi itam xam nga ne kon dootu wàññi dootu dootu wàññi léegi kii nit ki duñ ne dafa dëkkoon léegi màkka ndax léegi dafa yëfa si yéen rek tukki si fa rek waaw ndax taxawoon woon moom foofu dafa yéene dëkk dëkkoon na fa fësoon dafa yéene dëkk waaye ba nga xamee ne benn diiru jamono ñu fas yéene bàyyi foofu dem dëkk feneen mu amaat soxla ñu dellu si waat fi waaw kon mu ne kon kooku du tax mu daal mu wàññi gis nga dégg de bu dellu si waatee day wàññi waaw deux heures waaw ndax dafa yéene dox rek tukki rek tukki rek la fi dikke biiral bàyyi woon na dëkk bu ko seen yéene dëkk waaw nga dem dëkk feneen léegi nag mu am soxla ñëwaat fa waaw
ñu am rek fii léegi. ñu am rek fii. waaw bu dëkk fii dugg. boobu mën naa ne dañuy mën dañu doon xam jàmm rek.
waaw yow nga doo ci nekk dem nekk na xaar.
waaw liggéey am fa kër.
waaw dafa yàq sama alal ci daal su affaire yi nga xam ne sa yaay yooyu waaye.
waaw waaw waaw parce que yéene toog daal liggéey wala yooyu ku fekk léegi dafa daal ku ma fekk bëgg liggéey.
waaw waaw am fa kër waaw waaye su nekk seen kër yi.
waaw boo ñëwee ci ginnaaw yow wala wàññi. boo ci gisee.
ah déedéet doo doo wàññi.
li nga ba ba ma jubbanti la masal moom am na fu mu masal fu mu la waxee ne boo doxam dox wàññi boo àggee si dëkk boo xam ne sa soxnaa nga fa dootoo wàññi waaw léegi moom ba tey dafa mel nag tey même ko misaale nii waa ji dañ ko affecté Dakar xam nga léegi fële dëkk waaye këram a ngi fii mu fas fa yéene léegi dëkk nag ñu affecté waat ko léegi eh, Kaolack mu nekk Kaolack léegi nag soxla si boppam mu fas yéene tukki rek Dakar faji soxlaam dellu si waat day wàññi waaw waaw waaw waaw waaw. moo tax moom bu fekkee ne li nga dox rek mot na arba arba minutes rek moom na ngay moom da ngay wàññi ba ngay agsi boo agsee mu tag léegi su fekkee ne nit ki ni ma ko misaale woon léegi jóge nga fii def nga dëkk mag léegi daal da nga fas yéene dëkk mag xam nga kon ba nga àggee rek te fas nga yéene dëkk rek da ngay daal di matal waaw nga toog ba mu yàgg nga ne ah man daal màgg bëgg naa fi toog waaye daal daal nangam a tax damay Sénégal yi dañ ci faral di ñëw dañuy bari naa dem dëkk Inde wala Irak wala yooyu nga dem Irak léegi dëkk fa nga am soxla nag dañ ne war a ñëw màgg waaw dox si soxla waaw
lañ jàpp tamit mooy bu fekkee ne bi ngay ñëw màkk moom bu siroo na fa am léegi ñeenti fan waaw léegi moom boo ko da ngay wàññi waaw ndax ndax mu moom fekk bu fekkee moom fas yéene ko ak ñeenti fan da ngay matal da ngay matal ndax moom ab dox la rek léegi mu mel ne mosuloo fa woon a nekk dox la rek kon léegi bu ñu ñëwee ba mu di seexal waaw.
maanaam xam nga ko du ko mbete léegi day gën a dem Touba fa moom nekk Touba waaw léegi moom ci moom ay mbokk mu ngi fa waaw bu jógee Touba léegi tey ba ba muy àgg fete loolu moom ab tukkee diggante bu bu ñu day gàtt waaw waaye nag léegi bu xasee ba àgg ba nag dañuy seet léegi tey lam yéen waaw lam yéen waaw. bu fekkee ne soxnaam nga fa. waaw soxna si moom bu ma nekkee moom. day matal day moom day matal même bu dee bu fekkee ñaari fan la ci war a toog wala benn fan it day matal. ndax këram la. bu amul kër daal. waaw bu fa amul kër waaw këram la léegi dootu mu saase. amul lu mu yéene nangam. waaw see boo yéene sax see boo yéene sax ñaari heure day day day day day matal.
su dee màgg moom kese nag moom moo ci am boobu jagle moom.
waaw waaw waaw waaw.
bu ñëwee bokkoon kenn ko ci.
waaw gis nga li ñu naan xale bi ñu ko mag ñi daan xale bi bàyyiwul lu ndaw di laaj mu ne aw makkaan yi sëw jotin loolu béréb bu soxnaam nekk day matal de ndax dama xam sàgg ne soxna soo xam sàgg ne dinaa ak moom maanaam jébale nañ ko daal faqat xam ne kon du këram ci misaal ba indi reex ni donte daf faa dem ci ngelaw itam ngelaw lee ko jëg moom itam dem fa xaalis bi soo xam aji not la ko moom waaye wan yëpp du ko woon bii yéene tàbbeel maanaam nga xam ne nit ki dafa yéene dugg dëkk boobu nga xam ne ngelaw lee ko jañ ba mu agsi waaye xam na ne dëkk sàngama dafa su yéene ah bu dugg ci biir dëkk bi léegi noppalu wala naan wala seet ay nit ak yooyu wala wala muy bërëb bu soxnaam wala sa baynahu te dëkk nekk digganteem maanaam fa mu jógee woon wa baynahu ak dëkk bii nga xam ne ci la ñuyeen moom la fas yéene dugg almasaafatu maanaam biiru maanaam yàlla ak guddaayu ñeent waaw waaw waaw daaw daaw day matal wala sa bay na benn waaw almasaafatu waaw kañ dafay wane ne kon bu dee bu fekkee ne ne même deme ne nii xam na noonu waaye li mu waxoon ne ila xilaafi mazhab yi moo tax indi loolu la wa niyatu iqaamat arbaati ayaamin ànd ak maanaam pour matal gi yéene sax ñeenti fan ci xaaxir maanaam ma nga dellu yëpp ci njëkk ba waaw doom gaay wàññi waaw walaw bi xilaat yi donte ci diggante yi la itam maanaam bu fekkonte ne ci biir tukki bi mu ne ko fii ne réew ji fi na fi loo xam ne waxu koon wa ashaara bi law إلى ما راجعه الدين المسلم أن نية إقامة المدة المذكورة لا تقطع القصر إلا إذا كانت في انتهاء السفر أو ابتدائه وأما إذا كانت في خلافه فلا تقطعه إلا الأحكام. waaw wuute boobu de am na yàlla njëriñ fii jëm ci dëkk wax ni ñu rawal waaw nga tax ci diggante bi xam nga dañuy jàngoon ne boo fa dee toog ñeent fan day matal ba nga fay jëlee fii mu ne walaw bi xilaat yi donte ci biir ci digg dox bi maanaam ci biir tukki bi la itam ñooñu donte dafa sofu woon maanaam ci biir dox bi may wa asaara bi law ilaa maara bii min anna niyata iqam muddati al mazkuri la taqul qasra illa ida kaanat fi bidaa i safar moom munus li mu lëndal moo dina am ñeenti fan tax ngay matal bàyyi waat fa nga jëm la waaye bu dee ci yoon wi ñeenti fan yi du tax ngay matal ko gannaaw yow fasloo yi ne sax rek da ngay dem rek te taxul woon a jóg da ngay dem comme naa waaw waaw du tax nga waa nga matal waaw waaw waaw waaw waaw waaw kooku mooy masal mooy lépp bi nga xam ne moom la ñu lëngal nga xam ne kon xilaatam ci koo xam ne am na ñeneen ñu ko lëngal waaye ñu ñu lus moom li mu lëngal mooy du la tax a matal waaye dangaa waroon a matal ci matal bi du wees waaw li nga di mu ni illal askara ndare boo armé di doon xar bi ci këru xarewaale ya këru xarewaale mooy ci këru noon yi daal ñi ñuy xareel ñi ñuy xareel maanaam li nga armée bi ñëwul ci réew yi lislaam yi dafa nekk ci réew yi noon yi kooku nga xam ne dafa yéene sax arbaat arbaat ay yéene ñeenti fan yi fa ak sër daal di xarbi المحل الذي يقع فيه الحب سواء كان دار الكفار او من فلا ينقتل قتله manam ñaan su fekkente ne kër fi nga xam ne mu nekk bérébu xare la doon ci kër jullit yi la woon ci réewi jullit yi la woon tam waaye fa la noonu yi xareel dañ fa ñëw xanaa ñi xeex ak ñoom rek ñi sax ci béréb ñeent fan dala tax a matal dafay wàññi waaw ndax da nga da nga mel ne ku nekk ci safar waaw. am nañoo def noonu ci vingt-quatre heures. waaw. jërëjëf. amul ilm wala nga xam biha ci sax ñeenti fan. aadatan. fii daal mosu mu sànni moom faaw mu am ci ñeenti wala lu ko ëpp moom. mënul man ci ñeenti fan mu mu leer la kooku boo ñëwee rek da ngay daal di commencé matal. waaye la fa matal du caa génne sax gi de sax gi rek kese an niyatiha wala mu biha aadatan fi qaabitin aadati min qadaiha xam nga ko moom da ngay matal waaw wa in taaxara su fekkee ne yéex na safar woo tukkiim ba su fekkente ne dafay tukki tukki bu yéex lool maanaam day sax ñu taxawaaloo di yàgg ci ay kii wa inna waa su fekkee ne dafa yéene sax koo xam ne dana mat ñeenti fan di salaatin maanaam ci julli mu ngi ko xamee ci julli bi ci biir julli bi shafa mu tollanti ñaareel wala mu tudd si tëdd day ñu atam naa dafa ne wa in taaxara safaruhu ay baoda wa taraaxaa dëkkul iqamatihi huwa ka qawli baaji ne walaw kasara iqamatuhu wa innawaaha al iqamatu maanaam iqamatil qadr bi salaatin fiiha ahramu biha mu ngi armale woon ne wàññi la ba armale woon gannaaw bi ci biir mu dal di xam ne dana am ñeenti fan ko xam ba léegi am na lu bees ci lu war te ci biir jiw bi dina ko fekk. pour dëgg changement bi la. moom la wax ne la kon daf koy dëkk bu fekkee ne fasul braka bu fekkente ne nag fasoon na braka moo tax mu ne di salaati shafain shafaaha bi salaati shafaaha kañ noonu kon mu daal di mottali ñaareelu rakka bi bi salaati shafaa waaw waaw waaw walam tujj si te du doy moom julli ji mu nekk xadar yatan du doy bu ko jullee du doy pour mën ko julli ñeent wala sax te te itam pour bu ko jullee ñaar wan dem na ba kàbbar ngir bees si loo xam ne dafay soppi ak sudee ndax moom mu ngi yéene woon waaw kay mu ngi yéene woon wàññi léegi nag leer na ko ne te kàbbar woon na ak yéene wàññi mu dem ba ci biir julli ji yàlla di ci ñëw ne ah ñu ko daanu fi yàgg ndax ci doon xaar kat gannaaw waa taati ci léegi wala ci sàngam lay ñëw xanaa xam na ne léegi moom léegi wàññi julli waratu ko waaye kàbbare woon na wàññi yére woon na wàññi léegi kon waratu la wàññi boo wàññi julli yàq waaw loolu li ko li ko dàq léegi day def waaw suubi rek te mënatu la matal ndax mu ngi kàbbare woon war na ñaar rakkaa la yéene woon waaw léegi dañuy seet bu fekkente ne fasul benn rakkaa mu dab julli bi daal di kàbbaraat yéene matal fekkee ne façon na rakkaa mu ñaareel ko sëlmal muy naan waaw waaw comme nan waxoon ci matal rek wax bu ba daa fekkee ne dafay sëlmal ba noppi soog a xam ne kat dañu matal ah ah mu baam ci waxtu nga xam ne kon bu fekkee ne waxtu yi passé na dootu baam dafa julli wàññi ba noppi nag xam ne kat ah dëgg kat moom kat dama julli waaye nag sa daal ne roy na kii mun aji sax di ci aji wàññi jooju ba ko luñ képp ala sunnati yi ñu ci sunnaam yow bu fekkente ne yaay wàññi nga roy kii matal boo julli ñaar rakka taw ñu sëñ bi sëñ bu fekkee ne yow mi roy yaay wàññi yaay matal yaay wàññi bu sëlmalee nga def mu kon ku nekk sunna sa sunna maanaam sa yoon waaye allo allo man la safaanu dégg nga ñu fekk daa mucc mun bihi maanaam léegi kii aji aji wàññi bi moo roy ci aji matal bi kooku nag wata akkada sedd li ko wat ci biir bi kooku lañ ko gën a sidee naan
boo nekkee ci tukki boo ci jàkk da nga war a matal li nga war a matal waaw boo royee ci ilimaan yi nga xam ne dañ tam gis nga lu ci boobu la mu gën a nekk.
ma ne sama yaay.
wala mu yooyu te du baax. waaye ak ma nga motti na matal na musaafir musaafir na waa ko bu yóbbu woon na it maa ma matal aadama ba am wax ci wax wa in sahwan tan ci jëmal la wante sagi bu dee dafa jëmal juum moom ndax ak juleem ñaar rakka rek la woon mu juum ba yokk ñoom ñaar rakka xam nga dañ ne woon ku julli ci julli kam julli gi mu yàq waaye nag fii li tax mu woyof ëpp ndax boo julli jeneen bu mu doon rek boo ci yokkee kanam mu daal di ëpp li mu julli.
waaw xam nga ñoom yokku ci kanam daal.
yokku ci kanam waaw.
day gàttal. day moom gàttal julli.
maanaam dafa yéene ñaari rakka. léegi mu juum julli ñeenti rakka. xam nga moom daanaka moom yokkul julli. ndax kii bu boppam la. dafa naan rek. te warul woon matal foofu lay sujjoot bu fekkee dafa juum. fekkee ne moo ko tey mu baax waxtu
yéen a woon lu yéene woon waaw waaw nee na pour tool yi waaw ñetteelu ñetteelu koy bi waaw aar ba wa in sahwan sajada mu si jël wala saxaw na gën a wér fakkan waaw te aada tuho moo di baamam dañ ko maamoom yi dañ ko maamoom yi tamit waaye ñu baamu day baamu di wax ko fekk waaye wala dafa la gën a lëng fa waaw ak bari mu ko ah ak sax waxuñ ko kon waxal waxal wu ñu ko ay ak sax sax moom nekk إلى إلى أن شيخا غير الذين تقدموا قوما استظهر هذا وقوما لم يمثل أحسن هذا مني ونرجع الضروري وقت ضروري نتبعه نجب ndem topp na kan masalan su fekkee dafa yéene masal ci ci dégg ci jamañ fàtt ne day day day wàññi moom fàtt dafa yéene masal moom fàtt ne musaafir la dégg nga ba noppi masal lépp ci juum digi wala mu tey ko dana si jëm ba alisalaam mu ni nag li gën a daal mooy dafa war a baamu ci waxtu naka noonu maamu ñi ñu topp ci moom itam moom mi nga xam ne dafa waroon a wàññi mu fàtte ne musaafir la ba yéene matal ba noppi ba yéene ci ba noppi matal ci tey jileen yàquwul day baax ci waxtu mu ni wala dafa la gën a lëng te ibnu yunus waxtu yi ab daroor yi mu ne waxtu daroor yi tax ñuy wax maanaam du muxtaar bu muxtaar yi passé ñu koy mu baax te du mat daroor yi yooyu in tabi amoon dem topp na ko moom maamoom ma dafa nekk maamoom yi ndem in tabi amoon dem topp na ko moom maamoom bi dégg ci matal bi mu ne wa illaa fekkee ne topp ko moom moom maamu moom dafa yéene ñaari rakka fàtte ne defe ne imaam bi moom it day wàññi moom maamu mi boo defee batalat mu yàqu comme dégg bu dee përi léegi ilimaan bi nga xam ne dafa waroon a wàññi mu matal xam nga dañ ñëwoon moo ko maam ñëpp dañuy sujjóot dañuy baax ñu ci waxtu dara lañ ci ci ko indi waaw dégg nga loolu mooy bi ko maamum toppee su fekkee nag léegi maamum moom topp ko dafa armal yéene ñaar rakka dégg nga xam na ni kee moom gannaaw moom nee nañ ko da ngay baax te ndax te maamum maamum moom dafa jàpp woon ne moom yéenewul maxal dafa jàpp ne dafa yéene ñaar rakka waaw gàttal moom mu yéene loolu moom ba noppi mu bañ ko xool moom bu sëlmal kee mottali julleem yàqu waaw ndax moom li mu jàpp ne moom léegi di maanaam armale di maanaam armale armale wu ko li ba noppi te topp na ilimaan bi ba noppi te sëlmal na ilimaan bi moom jóg ilimaan bi moom moom mi nga xam ne dafa fàtte ne musaafir la ba yéene wàññi julli ñaari rakka ba noppi dégg nga te julli fàtte ne musaafir mu julli ñeenti rakkaat kooku moom day baax rek waaw dafa fàtte ki nga xam ne nag moom dafa wuuteeg ndax ilimaanam te armal ci gannaaw ilimaanam ba noppi jortu ne lii la ilimaanam armale ba mu armale loolu moom ba noppi topp ko kooku la dina ñax waaw
sëlmal bi topp ci imaam waaw dafa mel ne kon mën na sëlmal naa imaam te imaam sëlmal ki nga xam ne dafa waaw loolu moo tax moo tax jileem yàqu ndax topp ko bu ko toppoon ndax mën na ko ndax mën na ko déedéet déedéet moo tax julleem yàqu ndax bu ko toppoon day nit ba mu sëlmal mu sëlmal day ànd ak moom.
bu tëddee imam nag te fekk imam moom yàqu na daaw la daaw la sëlmal xam nga bu imam yàqu liwul dañu wax ne dafa war a baamu ci waxtu daruri yi ak maam moom bu ko toppee boo xam ne nag maam moom mën topp ko léegi dafa moom dafa ne imam ñaar rakka la la la yéene mu daal di yéene ñaar rakkaam matal ñaar rakkaam ilimaan bi moom jóg moom topp ko mu daal di silmal moom moom julleen yàqu moom bu fekkoon ne daf koo topp ñoom ñaar ñëpp ñoo war a baamu ci waxtu bu yi
julli yàqu nañ li ko waral mooy dañuy tàggatoo imaam dafa tàqali ko ilimaan ba noppi te dafa jàppoon ne te moom la roy fasul yéenee roy ndax dafa jàppoon ne eh, dafay wàññi ba moom bu yéenee wàññi roy ci ilimaan ba noppi mu dem ba ci digg bi mu wacc ci ilimaan bi nga xam ne ci moom la royoon ba noppi te feeñ na ne itam ilimaan bi moom yéenewul woon loola dafa juum mu sëlmal itam xam la xam la imaam bi yàqu la na mu ne ñu toll fii an kasara naka noonu bu waa wàññee am dem ci tey moom mi ilimaan wala maam moom mu ne ana fi ñu ci toll waaw mu ne ka an kasara musafir salaatahu xamdan xamdan aw jahal aw taawilan baada niyati ismaani waaw waaw dafa yéene matal te moom musafir la ba noppi julli ñaar rakka rek ah man dama wàññi daal di sëbal ma ne baax waaw waaw ñu ko woon ñu nga ñu ko fil waxtu waaw waaw foog naa ko baax dañu yegg ak suñ tool ba ka am kasara am dama wastaahi aji jamat nag ka ahkaami sahi day demee ni ak tey jamat ya nga xam ne maanaam ci wàññi te dafa jóom dégg nga dafa fàtte moom dafa war a wàññi te mu fàtte masala bi woon rek la dafay leeral bu fekkee ne dafa jëm ci rek yéene masala bi dafa yéene masala moo ci wàññi te ahkaabi sahi ahkaabi sahi salloo nañ si benn fa intaala xaraja ñu ne ne ci di batala bu fekkee ne jege na mu juraat yéene kabar pour ñaar rakkaa yi def bu yàggu dara bu fekkee ne teewul bu mu yàgg mu ni wakaan atam naka lu bu mu mottalee wa maa moomuhu ak maa moomam baax na niyee ci xasini ci gannaaw ba ñu yéenee wàññi mu def ko nag am duñ ci tey xewoon wala ci jëmat jëxalam wala ci réere mu ndax kon fa ak baa moom ci waxtu waxtu waxtu waxtu rek lay baamu dafa sabaxa sabal maamumu sabalaat na ko maamumu maamumu
daal bi amul te du ko topp te wasall ma bu ko defee sëlmalat na al musaafir bi salaamihi musaafir bi moom day dal di sëlmal bu sëlmalee waa tama xamatali xayruhu keneen ko dul musaafir baadahu gannaaw bu mu sëlmalee ak saatin bu ñu bu ñu dee mbooloo ñu ñu ñu njëma yéen leer naa leerin de
ay ñax ñax dégg nga wa aarata baamoot na fàq rek bil waxtu yi dégg nga mu ne na nan seet kon loolu mu ne léegi dafa matal moom ilimaan bi gannaaw ba mu yéenee wàññi dox na lu mat ñeenti burut du fas mu war a wàññi mu yéenee wàññi far matal ak maamu te loolu moom mu def ko ci tey wala jëmat wala réere lu mu ci mën a def xam nga masala mi ñu wees woon léegi mooy wal asaxu iaadatuhu boobu mooy wa in atam musaafirin nawaa itmaama aada bi wax si mooy wa in saxwan sajad bu si waroon ngir loolu léegi imaan ji dafa mottali maanaam moom topp ko te fekk dañu yéene woon a wàññi lu ngeen xalaat foofu ci waxtu mu ne kon am na mooy masala bi ñu weesu am dan wa sahwan aw jahlan mu ne kon fa fil waxti fa dana baamu kon fil waxti mu ne wa sabaxa maanaam ñoom ñëppay baamu ci waxtu mu ne kooku li tax mu wax ko beneen beneen masala kon nag wasaabaxe ji beneen mas- masala la waaw في تخصيصه ذكر قوله وكفارك ظاهر الآية كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تقصر لا تحتج بأنها أم المؤمنين فجميع الأرض وكلها كأم فقيه فكأم ديك وإن قام الإمام الإتمام سهوا أو جهلا بعد أن قصد سبها مأمون جميل من علم بسهوه أو جهله فإن رجع سجد بسهمه وصحت صلاته وإن تمادى فلا يتبعه مامون في الإتمام بل اجلس لفراقهم فمن كانت من المسافر وسلم عليه وعلى المسافر بسلامه بإمام من وسبح سبلاتنا فكان تسبح مامومه مامومم ولا يتبعه تدي توقفه dégg nga bu fekkente ne léegi dafa matal dafa wa war a wàññi maanaam julli na eh, li nga xam ne moom la waroon a julli ci bi mu wàññee nit nga dégg leen ko de waaw nit nga dafa juum wala mu réere ko wala mu fàtte maam mu topp ko daal koy sàmbaat waaw ñu ñoo ngi daal noo ànd di tukki imaam ji kabar parce que yéene wàññi léegi mu jullee ñaar rakka mu mu jóg dana naan dafa fàtte dafa juum kon ndax mu wa mu sàbbaal ko ngir mu toog taaye sëlmal léegi bu jógee dañ koy sàbbaal ndax mun ci suñu yort mooy dafa juum rek mu mel ne bu ñu julli woon ñeent rakka ba matal mu dal di jóg xam nga foofu itam ay masala fàtte wu leen ko de masala yi fi moom day toog daal day bu ko sàbbaale bu lànkee day toog xaar
waaw bu fekkente ne waaw kooku ñaari masala bu wala bu toogee ak bu jógee topp parce que wóor na ko ci suñu li nga xam ne tukki wul moom jàngoon na masala yooyu waaw kañ bo boobu masala moom moo kii léegi mu ne wa saba sabalaat maamu maamu wala wutali topp ko maamu moom dafa war a toog ndax xam na ne moom leer na ko ne dañuy wàññi li ñuy war a wàññi it moo tax bi ma bi imaam bi jógee mu sabbaal ko ne kon xam na ne dafa juum wala mu fàtte kon du ko topp wa sallama bu ko defee sëlmalat na al musaafiru bi salaamihi maanaam ci sëlmaloo ilimaan waaye wa atama mot leen xayruhu koo xam ne muqim la baadahu maanaam bu sëlmalee ko defee nag ñoom afdaada ndax genn ilimaan bi la ñu am foofu waaye wa aada baamoot na moom ilimaan faqat mooy mu dellu sama xel ma woon masal moom dafa waroon a wàññi ba yéene na wàññi mu fàtte gannaaw bi wala mu réere ba mu mottali waxoon nañ ne day baamu ibnu yunus na dar ba ci daruri ba ci daruri parce que ñoom dañ koy sàbbaal bu bu leen toppee baax na bu def ñoom ñu toog waaw moom bu mottalee julli ba rafet na waaw ñoom bu iliman bi sëlmale ñoom maam moom ni dara war leen ne imam joon joon moom waaw mooy baamu moom la moo war a baax waaw moo baax ndax ñoo ñoom seen toog gi ñu toog bañ koo toog Waaw.
ko teg kenn dafa juum rek kañ waaye ñu foog ñu ne ba si man sëlma ba pare waaw ñu soog waaw a waaw fi amul beneen àtte bu dul Hum, ci ci ñi nga xamante ni moom taxaw na imaam ñi ci topp am ñeneen ñuy julli ci gannaaw te ñoom ñuy mukkal ah, kay du moom moom la du moom la wax fii ne la muqim bi moom day mottali ñoom moom la muqim imaam bi julli wax de waxtu ilimaan juumee du ñu roy ci juum gi waaw kañ waaw ah wax na ko de ñu ngi ci kanam waaw waaw waaw slogan slogan waaw waaw bu ñëw Moussa bu ñu bu ñu kii ak ñun ñoo def affaire ndax moom mënatu ñoo defaat kii
mënuñu ànd ak ci juum ilimaan bi nga xam ne sàbba nañ ko mu bañ mu leer ne na ci erreur la nekk duñ ko royati wa in zannahum fekkee ne dafa leen a jortu moom aji kàbban yi si gannaaw mbooloo safaran mu jàpp ne dañoo dañuy wàññi ndax dañoo taw dañoo dañoo kii la ñu nekk musaafir fa zaharata feeñ xilaaf xaw wuuteem aadan ba baam abadan xaw parce que dafa ñëw fekk muy julli dégg nga ah mu xam ne xel dëkk nu fi mu jàpp ne xëy na fan jógee sori na ba danoo war a wàññi mu daal di kappar ci suñu gannaaw léegi nag bu ñu jullee matal ñeent rak fekk itam na fekk ne yow ilimaan bi julli takkusaan lay julli moom buy julli mu wóor la mu wóor la ne itam muqiim la wala mu wóor la ne musaafir la waaye bu fekkente ne dangaa ñëw armale li mu armale fekk muy julli tisbaar yow nag ngay julli ci- ci waxtu wi yow nag ngay julli takkusaan yow du baax du dox kon sa julli day yàqu waaye nag comme nun ñi rek fii muy julli timis mu leer na ñun ñëpp timis la ñuy julli te kenn du ko wàññi te eh, nu dal di kàbbara li suñu imam li mu armale li mu armale foofu lay dagal
maanaam fokk laa ñu xam ba xam ne kii waxtu wi muy julli la ñuy julli waaw maanaam imam bi dafa bokk itam atte ci musaafir Moussa Faye mu wala xëy muqim boppam ndax dafa yaakaar ne fële ci boppam. dafa xawoon na gàttal la bu njëkk waaw dafa ko doon waaw ndax masala yi ci war a mën a soq koo dafa bari dégg nga te mu mu bàyyi ko ba fii ah aywa surtout da ngeen di laal ci kii bi yéen a ngi dem de moo ne yéen a ngi dem tubaarkàlla de ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان
dafa ñàkk yéene wàññi wala itmaam yi ak matal benn mu tey ko wala mu ñàkk koo tey benn imaam la wala maamum wala moom kenn ay julli dafay fas yéene julli tisbaar rek xam nga julli tisbaar bi mën na nekk mu wàññi mën na nekk itam mat waaw bu fekkee ne yow musaafir nga nga kàbbat di julli tisbaar tisbaar bi nga yéene dëgg kii bi dëggu na ci wàññi dëggu na ci matal duggal dëggu na ci ñàkk yéene gi nga yéene nag salaatul asr ñàkk yéene itam itmaam te ñaar yëpp bu ci nekk jaadu ci yow mën a nekk ndax kon wér na wala wér yi mu ne traite am nañ ci dem dee.
boo ci deful lenn daal.
waaw kañ waaw yéen a ngi ci lenn te amee nga àtte musaafir sa sunna mooy wàññi. ah bu la neexee it araamul ci yow nga matal. léegi nag nga kabar parce que yéen julli tisbaar julli tisbaar itam dëggu na ci kuy wàññi dëggu na ci kuy matal. kon ràññee la goo dara ku ñu xam ne musaafir nga day jàpp ne yaa ngi wàññi. waaye xam nañ ne mat nga mën nga matal yow nag yéene nga ci lenn julli tisbaar rek nga yéene wam ni ba soppe fat na taajil awbati gaaw a dellu bu fekkente ne da nga yow musaafir yi da nga tukki ngay faj sa soxla la la yëkkati bu jeexee rek sopp nañu maanaam day am tuyaaba nga gaaw a dellu bi nga xam ne defatoo ci dara ndax am na ay xaq yu bari yu aju ci yow ci kër ga ko defee gannaaw dara bàyyatu la fi dem wa duxulu ak tab bi bu xam ca yoor yoor booy ñëw sa kër nga bañ a ñëw guddi jungo loolu lañ jël ak yooyu yu bëgg nga xaar ba jant bi yëkkati ko sa xam nga mu taale mu ne war a sa yàlla malaakat nag la ko ñeel ko jëm ko su xarit moom aju tukki jooju mu sax xel ni boole tisbaar ak takkusaan du bari bi ci jéeri bu ko defee ci njëlbéenu kenn ki ak mujj kenn ki waaw lay boole ñaari julli yëpp bu jullee tisbaar ba noppi daal di tuuti mu ko daal di kaw takkusaan loolu dañ ko war a mën
ngir tool bi rek. maanaam foofu li ñu ci bëgg a tax mooy bu ne asalaamaaleykum dal di wala mu toog tuuti.
mu toog tuuti. toog tuuti.
ndax tool moo tax maanaam tuuti yooyu ñuy wax nii ndax mën nañu koo tax biir ci jamono ngeen toll ci nangam yi.
minute.
waaw ci jamono ngeen toll.
waaw waaw fukki minute fukki minute ak juróom. bu ko tax daal juróom-ñaari minute daal bu ñu ko seetee. ba fukki minute ak juróom.
man de waaw Dakar bu ñu gëm ñàkk bu gëm julli foofu wax na. jamb jamb benn kii benn macha ay nit waaye daal dafa teel a julli dafa teel a julli ji ci bis te diggante bi mu toog sax lu ci ñetti minute waaw boobal lu taxoon mu leen boole booba dañuy daf dafa ñëwoon dafa doon xuus dafa ñëw xuus ci taw bi ñuy julli si waaw mu ragal ne xëy na taw bi dama kii yooyu
sopp nañu yéexee dugg ci jeexee leen daal ci waxtu wu njëkk bi nga def ñu ci waxtu wu njëkk waaye nga dugg ci mujj bi ba ci xaw ci wet ba jege gën a jege mujj daal dañ ko teel waxtu muxtaar ma lay doon waaw xam nga bu bari mu ne ci jéeri nit ki nekkul ci géej day tukki mu waat fas wala gëléem wala muy dox mu boole tisbaar ak takkusaan kon borom risaal li nga xam ne la jadd seyru fekkee ne dox bi gaaw na maanaam dafa yàkkamti def ku ñu jóg sori na wala dee
waaye ci biir maanaam lu tax ñu ne ci jéer gi dox léegi ñu ne ci jéer gi dox te daanaka bu ñu boolee kii moo xam te géej bi ñu war a sori damaa nit koo xam ne léegi léegi moom mu ngi tukki te zone fii waa ji tukki rek daanaka moom lay tukki woon ci ci géej gi. ci géej waaw gi.
waaw waaw ak kii maanaam zone bi muy tukki ci géej géej gi wala bi muy tukki ci géej gi daanaka.
Ah, maanaam lu tax euh, ñoo ñoo ñoo kileel ko yaramal ko ci kii géej tukki ci jéer yi te kii tukki ci géej yaramalaluñ ko waaw.
xam nga tukki kii tukki ci géej gi moom dafa bari ay ay problème problème mu xibla problème mu pàkk problème mu wëndeelu ànd ak gaal gi problème yooyu yëpp te waaw te moom kii tukki ci géej gi day toog rek kii tukki ci ci ci jéeri ji nag day dem ndax benn mu war ci daaba di dem wala muy dox ki nga xam ne dafa nekk ci géej gi moom ci gaal la nekk day toog rek kooku xam nga waaw comme loolu nag waaye li ma ci jigéen maanaam mooy. moom léegi bu fekkee ne léegi tey noppalu na léegi moom mu ngi tukki départ ba waxtu waxoon yi léegi. maanaam daanaka bii waxtu tisbaar dama ko jël rek boobu lay doog a départ.
waaw waaw.
amul fenn fu mu yaakaar ne léegi dara ñu wàcc.
waaw waaw ci jant soo gi mel noonu.
xam nga wuute bi mooy lii xam nga ki nga xam ne mu ngi tukki ci jéeri ji supposons mu war fas wala gëléem wala muy dox xam nga bu tisbaar jotee dana wàcc waaw dama wàcc.
julli def ay lawraatam yéegal yéegaat takkusaan jot mu wàcc ci ñaari wàcc yooyu moom la kee amul kee amul fu mu nekk rek lay nekk toog moom benn mën nay tëdd sax waxtu jot mu jóg julli ci biir gaal gi n'est-ce pas non loolu la xanaa kii xam nga ci ci borom misaal misaal dafa ne isa jadd sëyru waaw ci benn sàq mu waaw.
waaw charte boobu nga xam ne nit ki fi mu dem sori na te dafa yàkkamti xam nga kooku di wàcc ñaari yoon wàcc julli tisbaar wàcc julli takkusaan ñu yoram la ko bu boole ñaari waxtu yi tandis que ki nga xam ne moom dafa nekk ci géej gi moom mu ngi toog rek ci batoom moom mu ngi mel ne dimam mu ngi mel ne mu këram waaw mu ni nga ne ko xanaa dox bi dafa sori mat doxuwaay mu ne bal wa in qasura bon dox bi dafa gà- gàttoon itam wante nag na fekk muy dox boo xam ne bu- bu farlu daal bu far la boo xam ne nekkul boo xam ne rek da ngay wëndeelu ni wala ngay tourisme def tourisme ak yooyu pour yàlla ak bi charte adamul isyaan yi wala yu ci sart yoon ca wàññi ah, sart yooyu daf ci am waaye nag in jàdd sa- kii sax indi na ko in jàdd sa bal in la muy jidd kii nag moom xam nga borom bi saala foofu xam nga dafa indi sàq.
dafa dafa am ñu charte ba tey biir mazhab imam Malik ñu fekk ne dox bu yàkkamti la sayran xasisan ñii nag wa in la may jidda sayru waaye xam naa ne bële de moo gën ñu waaye daal moo ko fàtte waaye daal xamoo woon sax mu xamoo achète daal. waaw moo fàtte. waaye am na ci koo xam ne daal moom dafa foofu la xaw a appui tuuti.
waaw in jàdd sayru bu dul ibnu Habib daal sax na turu kan ci ñoom daal moo ko fàtte.
la dégg nga waaye nag li ma nee nag xilaaf loolu laa toog xam nga xaw na ko fekk si kenn ku dul jiw mu ñëw fii ah jàngat na ca mu dawoon a chartul jinne ñu ne ko de xam nga kooku moom moo indi li nga xam ne moo nekk ci wax yi way sara mu dawoon ñu sera mu dawoon moom saxal nañu charte boobu bu fekk ndox bi ndax ndox bi bu yàkkamtiwul day ne ruggi na ci gaal bi amatul maanaam boole gannaaw yàkkamtiwul moom mën na tisbaar jot mu julli def ay lawraatam yéegaat ci gëléemam wala fasam dem takkusaan jot mu wàcc ci julli xa yàkkamtiwul waaw léegi loolu sax est-ce que fi mu ne nii noo am ne labas sax ñëw ci naan noo am ne labas maanaam dox boo xam ne yàgg nga woon dara dara dara te da ngaa jug léegi tukki lii xaajatu la yàq.
masalan rek su fekkoon léegi da nga jóg ci bi nga xamee ne oto yi amul nga jëm mexe wala yooyu nga xam ne liñ la fa soxlaa ëllëg la boo yàkkamtoo waxtu boo àggee ci guddi gi sax baax waaw maa ngi tamit tamit tiisu ndox baa ngi fi ak contrainte yi loolu nag moo indi yërmande ji nga boole comme ni ñooy addiinu wisru ñoom mu ne fi àjjàng mu ci mu dawal charte jiddi charte dox bi tar dama yàkkamte li idraaki am nañ li nga ngir jotu mbir boo xam ne dafa ragal mu faat mu faat ko bu mën xalim ci wàccuwaay la naanuwaay boo xam ne zaalat dana dañ bii ci moom man xal ba nga xam ne ci la jëm man xal man xal mooy mu ngoog oasis yooyu point d'eau boo xam ne zaarat jéngi ko na maam moom jant bi bi xiw yi fekk mu nekk te mën xal ba wana waa te mu yéene an nuzula wàcc ba adal xoro bi bu jant sooy rek du du fasul yéene dox guddi
dañuy maanaam ci mën xal bi wala ci ci tukki bi loolu bërëb bi rek point d'eau ñu ci doon rek masalan dafa ne li idraak am rek bi mën xalin maanaam bi ma xalin rek man xam nga li tax muy faral wax kii xam nga ñaare ci désert bi état bi mooy oasis yi wan waan mu soola ba àddal xuru bi nga xam ne balay wàcc jënt bi dina so maanaam balay wàcc war waayam waaw ba àddal xuru bi waaw xam ne di sfiraar yi wala ci la njëkk gelu jant bi axarat na yéexe nag kon al asra takusaan dégg nga bu baax bu fekkee ne gannaaw loolu nag moom kon xuyra def tànnloo fii xaar ci boole am na ko boole maanaam takusaan ci takusaan jiital ko mu ànd ak tisbaar bi wala bàyyi ko waxtoo xam nga sura léegi ak xara bi bu ko defee léegi dafa mel ne affaire lu kii la maanaam dafa mel ni ba waxtoom la waaye ko waxtoom jot wax bu in zaalat mu ne su fekkente ne nag jant bi dafa jéngiku raakiban lu mu di aji war nga xam ne léegi moom nekkul di dox dafa war dégg nga maanaam rek mu ngi dem daal waaw muy dem ak xarafuma mu yeexe leen ñoom ñaar mu ci subaa rek takkusaan dégg nga tare fi al muxtaar mudu muxtaar mu takk sa tisbaar ak njaal beeru muxtaar mu takk sa bu ko defee xam nga yéexal nag tis yéexal tisbaar tuuti gaawe takk sa bu ko defee moom dafa war mu wàcc benn yoon wala day dox mu taxaw benn yoon ak taxawaayam ngir julli di benn yoon fekkee na insaan raakiban axrahuma in nawaa lisfiraara aw qablahu wa illaa su fekkente ne nag yéenewul lu jiitu jot soow jant bi moo te mooy isfiraar wala lu ko jiitu waaw baadahuma fa fi waqtayhima bu ci nekk daf koy julli ci waxtoom mu nirale ci julli ci ñaari waxtu mu nekk man nag nga xam ne laa yadbitu takkuwul nuzulahu ak wàccem yéenewul lenn xamul moom ban waxtu lay wàcc xamul ban waxtu lay aj am ban waxtu lay wàcc bu fekkente ne point d'eau bi dafa nekk ci kanamam te xamul kañ la cay àgg ca fa lay wàcce wala amul étape ci diggante bi day dem ba àgg fa mu jëm waaye mun koo xam xamul qabla al isfiraari wala baada al isfiraari qabla al xurub wala baada al xurub wala lenn dégg nga.
loolu kuréel noonu gën a léegi. jamono ñu toll dafa dana xaw a jafe.
waaw ndax dañoo xam kilomètres yi nombre ak li ngay dox. li ngay daw par kilomètre.
wala foo mën a demee tam boo vraiment ñaar da nga gis foo mën a dem.
da ak panne de signalisation yi mu mel borne yi bor borne kilomètres yi da nga gis ne dëkk sàngam nangami kilomètre yow yaa ngi daw nangami kilomètre après boo ko xamul dëgg-dëgg it da nga xam
ak loolu mat nañu leer loolu mu dugg ko jàng bàgg maa waaw waaw waaw waaw si zoro bi bëgg waaw ki ngay xam attey classique ba noppi nag xam nañ koy appliqué ci jamono yi mu nekk ndax atte yi yëpp kii biñ koy tër dafa yooyu amul gëléem lañ daal tukkee wala gaal wala fas wala dox yar dox la
waaw dafa bu ne bu ne soo xamee. da soo xamul. bu fekkente ne par exemple am nga ay indication yu la tax a xam. waaw day ko ñàkk xam dàmm na.
waaw exactement mooy li mu wax. waaw bu defee léegi acte boobu ñàkk xam bi mën na dañ wala. muy waxtu lëndëm nga gëlëm. wala waxtu lëndëm gis loolu rek. wala yu mel noonu daal loo xam daal waxtu woo fi mu amee la mën a xamal daal nga xam. booba acte ñàkk xam dàqul. dàqul waxtu woo xamee ne xam nga rek ak na nga mën a xamee doote da ngaa laaj nit mu jox la. nangam. léeg nag nga laaj koo xam ne daf lay wàcc dafa doon xam dama tudd du la mu ñu wakkal moktuur yi naka noonu ku ñu biiral ku biiram di metti la feebar biiram yi metti waxtu wu nekk mu wàcc julli dana tiis ci moom dégg nga kooku day boole moom it waaye julli gu ci nekk ci njëlbéenu waxtoom la koy def julli neen waaw mu ne wa saxiix ak aji wér itam koo xam ne feebarul dara jotu ko.
wala wala saxiix.
wali saa. ak loolu gën a tëdd. wali saxiix aji seex la ñeel aji wér koo xam ne feebarul nekkul ci tukki fexluhoo al jëf suur yi dañuy wax mu boole maanaam jëf ko jëfut mu jëf maanaam dajale ko bu boole ko bu julli yi dégg nga dégg nga waaye nga nee lan julli ci njaal beenu muxtaar dana ko faat xam nga waxoon na ni bu mu kàllaf bu deewee ci daruur yu bàkkaarum masalan tisbaar ji jot na muxtaar mi nga wàcc ko ba muxtaar mi paase daruur yi bi ñëw ba lu bari dem ci maanaam teel nit ki gaañu fekk mënoon na julli léegi bàkkaar du ko topp ndax li desoon ci diggante bu ci deew loolu mën na ci julli mu mel ne masal moom mu wees woon ñu nga doon laaj te muy bu desee juróomi rakka xam kooku itam ci càgganam càgganteem la bàyyee bañ a julli waaye teewul tax jàppe wuñ ko ko wuñ ko ko mu ni waxal yàlla mu ndax al ishaani ñaari gee te muy timis ak gee moom itam kazalika naka naka noonu la koy boolee wala moom kay wee tax ñuy wax tisbaar ak takkusaan mu ni taawi daani am nañ ci ñaari jamtal dégg nga maanaam ci ni ñu misaale woon bale ñooyam ci lépp wala déedéet wuute nañu taawi daani wa qaddama jiitalat na xaaiful xaaiful lexmaa yi aji ragal ji xam waa ji daal dana day def toujours su quatre heures demi jotee rek mu xam ba takkusaan du ko julli dana ragal kon nag waxtu woowu bu jotee la ko daawam dal dina ko dalati mu dal di jiital dina julli gi balaa waxtu waa jot ngir ragal waxtu yu jotee bu xam dootu mën a julli dootu ànd ak xelam ba waxtu yu faat ay bi taqdim rek lay doon wala.
taqdim rek taqdim waaye jublu ci léegi maanaam mu yeexee déedéet xam ne waqat dama jiital na xaa it irmaa yi aji ragal ji kile waaw ci waasan bu ko defee bu jullee tisbaar ba noppi rek dal di julli gaaw te julli takkusaan wala bu fekkente ne waxtu wi nga xam ne mu ci la daan xamee fekk jotagul mën na bàyyi ba mu jege waaye na ko wóor ne waxtu wi moom jotagul du ci lu fi xam moo xaddama jiitalat na julli ñaareel bi xaayifu leex naa yi aji ragal ji xëm wan naa fi di wan naa fi di ngeen bind maanaam ak aji ragal ji sibru naa fi sibru su metti la wala muy di ak miir ñooñu itam dafa leen boole ci àtte bee waaw bu ko defee ñu waxtu wañ ko daan defee rek te xam ne daf leen di fekk ci waxtu julli balay jot donte julli ga ak ségulit ñu jiital ñu julli ko
maanaam li mooy kon sibru soo xam noonu feebar boo xam ne day am crise bu lay dikkal waaw waaw ci ci benn jamono boo xam boo xam ne aadatan ci lay faral di waaw du mel ne sibru nga xam ne tàkkusaan en général ci lay waaw waaw waaw ci lay attaque
léegi mu teel teel a julli fii itam defe naa ne ci ci wàllu ñuy voyagé ci bato yu mel am wax na ci ñoo xam ne ñu maanaam moom waxtu bu mu kër dañuy leer waaye dañu am ñoo xam ne bi ñuy seetlu na jamono yu bëccëg wala jamono yu ngoon maanaam bu ñëwee ci bato foofu la ñu gën a sonn su fekkee nag bu leer bi dana metti ba nga xam ne duñ mën a julli wala dana leen seene ba julli bi du war dana ñu jiital
comme att bi comme att bi waaw moo tax
mu ni waaw wal may wa in salima su fekkee ne mucc na nag léegi li mu ragaloon amul koo xaddam wala mu jiitaloon wala mu yar taxil te laxasul dafa waroon a dafa waroon a dem di tukki ji tax mu jiital mu boole léegi faratul dem awir taxala wala sax laxas na xam na ay bagaasam dem na mu ko xalaate woon xam na zawaal ci la jiitu zawaal war na te mu wàcc indahu fa zawaal fa jamaa te mu boole aada na baamu asaadee te julli ñaareel
waxtu waaw waxtu waaw dégg ngeen de waxtu waaw waxtu mu ci kanam mais au fi jëf il achat yi mi ci boole timis ak gee faqat rek bi kulli masjidin ak ci jàkka ju mu doon rek ju mu mën a doon biir dëkk wala ci àll ba di mataren ngir ragal taw aw tiinin wala binit boo xam ne lëndëm gi day tax da nga ciy xuus mu yàq sa yére ak say tànk te doo ko xam maas waaye nag tiin boobu maasul masin waaw day ànd ak lëndëm ba doo ko mën a tegg waaye laa tiinin rek du caa génne kii awsul masin wala lëndëm rek bu ko defee zina ba ñuy ba ñuy dajale foofu ba ñuy boole isha ayni yi ci jàkka ji mu mën a doon ngir ragal taw wala bënit bu ànd ak lëndëm ah dina noddalee fa lil maxrib yi ñeel timis kal aadati waxtu wañ ko daan noddal lañ koy noddal waaye wa uxri ñu yeexe julli ga xalilan du néew su ma sulliyaa topp julleef leen ñoom ñaar julli timis teg ca takkusaan wilaa an cig toftale ma fum
waaye fii léegi li wax léegi maam bu fekkente ne léegi day comme ni mu waxee léegi matar ak tiin la wala matar ak zulma matar rek wala zulma ak tiin zulma ak tiin ñooy mën a ànd matar xam nga moom mënuloo ko fegu tiin nag su fekkee ne al su yoon yëpp dafa nekk ban waaye lëndëmul da nga mën teggi da nga am foo mën jaar bu fekkee ne itam lëndëmu kese la te àndul ak ban doo taq dara bu nga palamtu ba dem bu fekkente ne nag bënit la bu bari te weer wi fekk amul làmp mu lëndëm boobu ngay mën a boole ngir loolu bu dee taw moom rek may na la nga boole waaye bu dee lëndëm wala wala ba bu nit faaw ñu ànduloo ñoom ñaar nga soog a mën a sañ a boole.
léegi nag maanaam bu fekkee dafa dem jaww tax rek yu mel noonu.
wax na ko fii waaw xam nga ci sara bi la.
ok faqat wala ma asidati waaw laatinin faqat wala ma asidati alal mashhuri su fekkee ne bërit bi rek ak ngelaw lu mu bari bari da nga gis fi ngay jaar ngelaw lu mu bari da nga gis fi ngay jaar wala moo tax kii am na nag xayru mashhuur yi wax joo xam ne ñu ba tey ngelaw li mën na wàcc wàccuwaay yu moom bu baree ba doo mën a xoolee bu baax waaye nag li nga xam ne mooy mashhuur mooy ngelaw li lu mu bari bari feeg lëndëmul mu ngi leer ngay gis ba nit bi mën nga ko teg kon du tax nga sañ a boole da ngay julli waxtu bu nekk ci waxtoo ñenn bi nag mooy xayru ci xayru mashhuur moom mën nga mën nga lu baree trop ànd ak bëriñ nga bëgg.
waaw ci kaw rek na léegi jaamee ko mooy lor gi am jëmee ak.
waaw nga xam nga waaye mooy booy dellu xam nga bu amee ban ba noppi lëndëm yow mën nga ci daanu. mën nga xam nga nu mu ko waxee ci ngiroo. waaw boo tarxisee daanu.
dëgg waaw mën nga ci gaañu daanu gaañu. loolu mooy tax bu fekkente nag yaa ngi gis moom da nga mën a wattandiku lu néew kii taw bi nag xam nga ba tey taw da nga tooy ba noppi mën na la feebaral ndax tey ñëpp ñëpp ñoo mën a taw te duñ feebar boo amee seet wala nga wërët nga am muy bañ yooyu.
ah maanaam problème bu biir moo tax moom lay am ngelaw ndax ngelaw bi ñu am na ñoo xam ne tey mën na bañ a garaaw ñoom. am na ñoo xam ne tey ñun daanaka rek xaw na leen mën a def lu gën a garaaw leen taw.
ça dépend fu lor amee rek lor joo xam ne dina jëlee nga xam ne kii al mashhur rek la wax. waaw mashhur la kon jëlee ñooñu ñeneen ñeneen xalaat nañ ko noonu. xalaat bu ko defee dañuy julli timis rek daal di ciy teg gee. ñeneen faaw mu ne dañ ko ci daal di teg bu ñuy sëlma rek daal mu ne ah daal di mujj ko ñu ne ah illaa qadra azanin lu dul diir boo xam ne dana tolloo maanaam durée ñu noot mun xafi din noot bu di aju woyof du mas ji def lu tax ñuy woyof ak nodd bu xaw a gaaw bu suufee itam ndax xam nga nodd pour woote la waaw nodd lan la moom sunna la wala man duus la wala farata la wala lan sunna la partout waxtu wu ne rek sunna nodd yëpp sunna rek lay mën a doon am na am na nekk boo xam ne man rek la.
wa waxtu yi la. maanaam salaat boo xam ne waxtu yi la.
waaw.
maanaam salaat xadar yi.
waaw.
moom lay doon.
bokkul yëpp noot bi nga xam ne.
amul ay charte boo noot boo noot day kenn du la muy sax.
waaw ngay laaj li la.
maanaam boo xam ne da ngaa yaakaar ne boo xam ne yaakaar bismillah boo xam ne ay muñu ndikoo meneen borom xam nga ne boo nootee kenn du ñëw. bismillah
aleykum
bon charte yi kenn rek noddam sunna la wala déet
waaw dana nekk bu dee moom doo ko dee du sunna waaye bu fekkee dafa yaakaar ne bu doon dee am naa mbooloo baax
bu dee moom kenn te moom kenn du musaafir bu dee moom kenn du musaafir boo xam ne xaarul kenn kooku sopp na ko waaw bu xaarul kenn léegi nag dama ne kenn rek mooy moo war a julli moo xam dana mbooloo dana ñëw wala du ñëw moom noddam ban àtte la am sunna la toujours sunna la ba tey parce que moom bu noddee bu dolli mën naa am léegi bu doon mën naa am mbooloo ñëw sunna la ba tey parce que moom bu noddee bu dolli mën naa am léegi bu doon mën naa am mbooloo ñëw mën naa am mbooloo bay ñëw wala bu ñëw itam léegi daañu bu déggee bu ñu déggee baatam léegi daañu yëg ni julli jot su fekkee xaadir la boo xam ne mi ngi ci dëkk bi wuute nag su tukkee su fekkee ne mi ngi ci dëkk bi di kenn wala muy mbooloo sax tey woowuñu kenn koo xam ne ñu koy xaar moo duggoon si dund ko
d'accord boobu bu kaar noonu wér la noot bi nga xamee ne itam saafé bu nekk ci àll bi xam ne ne kenn du ñëw itam kaa boobu noonu la li ma laaj moo di benn waaye bu ñëw sunna al adanu li jamaatin atat fardan bi waqtihi wa xayran talabat wa xayran talabat sunna al adanu li jamaatin xam ne kon kenn génn na ci mbooloo mu ñëw war a julli farata boo xam ne jot na teew na ñu séenu it ne buñ noddee ñeneen daañu ñëw ñu woote kooku muy sunna sunna al adanu li jamaatin xam ne kon buñ far bokku ci atat fardan bi waxtu yi nga xam ne buñ ñëwee lu jiitu waxtu mën nañoo noddal waxtu lu jiitu waxtu ak julli suba rek suba ci ban waxtu lañ ko sañoo ko jiitu nodd gi jiitu julli gi soo jiitu waxtu sudus mu sudus mu d'accord loolu moom waxtu la dal xam nga lu waxee ran talabat ñu ko ñu tolloo ci waaw kañ mu ne wa iqaam du masjidin wa iqaamatin wala lan wala tanaxula deetul naafil nag bay defuma seen diggante fi ñuy jullee tamit si da ngay boole léegi lëndëm bi tar na yoon yi bant rek la wala day taw xiin na ba ñalingaan ñu bëgg a léegi julli ñuy war a julli timis ñu julli timis ñu dal di julli timis ci waxtoom kenn du naafil la daañ fi taqdir diggante koo xam ne war nañ fa mën a nodd buñ ko defee it baat bu suufee lay doon ndax dañuy boole ñu julli itam gee soog a ñibbi benn yoon timis julli boole waaye duñ naa fi la seen diggante de wala wala mu yem naaxu wala wala mu yem wala wala mu la ne man maa gaaw wala mu yem naaxu di nga te terewu ko waaw mu ne julli bu njëkk ga إنما كنا في أنفاقه إنما يتكلم على الأحكام المستقلة يمنعه التنفل بينهما الجمع إن وقع إلا أن يكسر حتى يغيب الشك فيمنعه ولم يمنعه تلوون لك من الورد ولم يمنعه تلوون من نافلة لا يقصد تلوون من نافلة بكو تري وعينك wala baadahuma du caa génne ba nga jullee ñu tax bu doon loolu kay dafaat nit ba géej gi jot. du dëgg. waaw maanaam la naafila gi amul maanaam yellu waaye nag arabu. waaw yaa ko fi dara.
dafa logique mu daal.
waaw kañ. waaw ndax bu fekkente ne yaa ngi naafila daf mel ne kon yow mën nga fi toog ba géej jot te àtte bi dafa dàq loolu yaa ngaa yàkkamti ndax taw bi. wala lu dem gi ba bi ba bëgg ba nga xam ne boo demee kër ga doo ma war a doo bëgg a mën a dellusiwaat ah léegi nag yow nga bëgg kon toog diggante boobu ba mu jot wala nga xam ne bu ñu toogee ba waxtu yu jullee tamit bu ñu ci tegee tuuti rek dana taw mu ngi xiin waa ngi kii ne daal yow nag nga toog fi dinaa kon kay nga far toog julli nga julli gee ci waxtu autorisation bu kenn exploité wu daanaka daanaka waaw wala baadahuma bu ci àggee nii itam mu julli leen ba noppi dina fi la ko gën a sax kii jaasa dagan na li mun faridin ñeel aji wéet bil maghribi ci timis dégg nga loolu sala mu daal waaw doonte dafa ji ju juddi woon ak ñeneen itam waaw yooyu juddi woon comme dana fekk leen bil isaa yi ñu nekk ci gee mu ànd ak ñoom dem jàpp waaw wali mu tekki fi boobu tey dagan na li mu tekk fi ñeel aji li attikaaf si jàkk bi nga si jiitin ci jàkkaar moom mu boole donte génnul dem këram deful dara waaye day ànd mbooloo mi ko yóbbaal day ànd ak ñoom ka anin qataa naka noonu boo xamee ne dagg na itam almataru taw bi baax na si ci gannaaw ba mu sóobee taw bi dafa sóob di taw ba nu ne dañuy boole léegi timis ak gee pour ñu bi benn yoon taw bi yàlla na képp jeex kon itam teew mën na ko boole waaye laa in faraxu du jàggee ni ñoom pare nañu de ñoom way julli ñi ci jàkk ji maanaam du dagan kenn nit rek ci timis mu ñëw bëgg a boole fekk pare ngeen yéen mbooloo mi julli gee gi nga xam ne ci leen waroon a fekk ngir boole ngir ànd ak yéen boole léegi dafa ñëw fekk ngeen pare moom moom moom kenn mu daal di kon julli timis ba noppi daal di kàbbar julli gee boole leen du ko mën
sartu kii jamaa sart la jamaa kay léegi nag mu ne kon fa yu axiru day yéexe li safaqi ba safaq fan nga ne ko kooku nga xam ne daal matalul charte boole julli faw rek day yéexal bu waxtu jot mu ne illa bil masajid dara ci jàkk yi astrasi di jàpp mooy ñan almasjid nabawi ak baytullahi alxaram almasjid alaqsa mu ni wala du caa génn muy dagan nag in xadasa ndem sos na ndem am na asabab sabab bi baax na luulaa ca gannaaw ba ñu jullee julli bu njëkk bi ba noppi dañuy julli ci ba noppi léegi nga xam ne dañoo war a am dellu ba gee jot ñu julli si wala bokk dañoo dañoo bëgg a toog dañoo am aada yi bu ñu jullee timis toog ba gee jot bu soog a julli ñu di benn yoon léegi nag julli nañu timis boppi
maanaam ndax mën nañoo xam illa bi wala illa illa maanaam bi ñu sëlmalee ba noppi toog diir mu am di taw yéene wuñu woon boole suñu xel sax niwuñu woon ci boole dama ko fasoon yéene julli timis rek dem ñibbi ba gee jot ñu dee bis wala ñi nga xam ne seen kër dafa sori te dañoo am aada yi di toog ba gee jot noonu la ñu loolu la ñu yéene woon léegi nag mu taw taw bi soog téye na leen dañu toog ba waxtu bu jot ñu julli bu sewetee ñu dem bu sewetul ñu seet ñuy dem mu ngi tegu ci kaw ne yéene wuñ ko woon.
yéene wuñ ko woon. waaw yéene wuñ woon boole waaw boole ñaari waxtu yi.
ndax timis moom amatul moom mënoo ko boole lu amatul.
lii nag passé na waaw suñ ne sëlmal nañ ba pare. sëlmal nañ ba pare.
timis bi tey boo gaawantoo jub doo génn doo mën a génn ñib.
ah boobu ne gaawantoo jub da ngay toog ah waaw génn ñib waaw waxtu yi.
mu ne walal maratu du caa gën jigéen itam di mën a boole dégg nga wa daif wala góor boo xam ne kii bayit la maanaam daiful biniyati ñu def ko bi baytayhima ci seen néeg nga ne waa ji daal dafa amul kattan taxawaayam metti na su jullee timis ba noppi bëgg a noppalu pour bëgg a jógaat julli gee dana metti ci moom mu xaar mu jóg kii mu julli ñaar yëpp boole benn yoon déedéet jigéen ji itam mu ne moom comme jigéen rek la mën na boole amul beneen illa mën na boole timis ak gee wala tisbaar ak takkusaan
ah kii maanaam léegi ki nga xam dafa dem rek jàkk ji moom léegi di di roy ci kii nga xam ne këram daanaka moom jàkk ji xëy na la gën ci moom sax mooy dem jàkk ji. waaw waaw bu fekkee ne léegi moom ci moom xëy na am na gànt bu mu dem jàkk ji bu mu fekk ci këram. këram mu taxul jàkk ji léegi ñu roy ci waaw ndax di mos nañ waaw waaw bés mi di mos ma yéen comme ni nga waxee ndax léegi moom moom ñu doon boobaa dana mën a am rek moom julli julli jamono ah moom déedéet ndax ca jàkka ja rek ndax jàkk waaw ca jàkka ja rek du mën a ànd ak ñoom du mën a ànd ak ñoom ci boole du mën a ànd ak ñoom ci juma.
waaw juma waaw juma.
waaw kay waaw biir jaam bi.
waaw jaam moom mooy xaw a jaaxatu.
waaw ba juma ji ñuy julli ci kër gat bi te am nañ juma.
waaw man dañoo ci kaw bu fekkente ne léegi suñu fees na dell. waaw te bu ñu génnee léegi dafa sàppee.
dina tasala su foofu.
waaw.
masalan bu fekkente ne jokkoon ak sàppe it c'est-à-dire bu dee naaj bi moom kon duñ ko duñ dañ koy mel ne dara néew fi béréb bi béréb ndax kenn mënu ci toog bu dee naaj bi métti na kon waaye nag bu fekkee ne bu njëkk a ñëw ñu wàcc kerfee bu gën a jege jàkk ji dem toog ci geneen kenn ko desare si bi ñu doy seen bi amee ñoom kër yi sax ci kenn fa see nekk ñu bàyyi ko mu fees seen kër dem ba seen seen bopp dañu am demandé ndax dañu charte bi dañ ak ak bu leen si gën a xale defal moo ci teg moo ci teg waaw ini tasala si ko fi du fekk jox ko ak wala di ko tere ah ok li ma ci mos a ci mooy loolu moom pour yeneen masaay yooyu noonu laa jotu ko la xool ci waaw loolu moom masab malik moom da koy def dama xam nag yéen mazahib yi waaw xam nga mazahib yi am na ay masala yu bari yoo xam ne dañ ciy wuute waaye bari wuñu trop te itam ñaar dafa am li ñu naan xam-xam ñett la xam-xam bu ñor te xëm xam-xam bu ñor te xëmagul xam-xam bu xëm te ñoragul xam-xam xam nga xam-xamu xadis moom dafa ñor te xëmagul luy ñor gi maanaam développé nañ ko ba topp ko topp topp ba daanaka lépp lu sallallahu alayhi wasallam waxoon moom mën nañ ne luñ ci mën a xam rek dajale nañ ko xëy naa kay yeneen yu ci bokkul yoo xam ne yi lu ñu sos la te waxu ko woon loolu itam ulamaaw yi dugg ci gëstu boo xam ne daanaka ay sóori ak yu weñ bu ñuul lañ ko làkkee ba pour bu bu wérul dugg ci gën a jafe mun naax yitil isnaad ak mat ni yëpp ñaar li ci gën a bari loolu itam ñu dem nag ba nga xam ne xam nga borom ngir yi ñeenti lekkoon yooyu am na si ñoo xam ne am na xaddis yu bari jot si joti wuloon woon xamuñu ko woon léegi nag mujtahid muqayyad yi nekk seen gannaaw dem nañu ba daanaka jamono bii ñu toll bu si nekk gis nañ fa mu wéeru bu fekkee ne kii dafa am xaddis yoo xam ne xam nañ ne daf ko daf ko jëflu woon ñi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw ñu mel nekk bu dee imam malik mel nekk ibnu qasim ak ashhab ak saxnoon ak ibnu abdul aziz ak ñoom ñëpp nga xam ne asad ibnu furaat gëstu nañu ba nga xam ne bari na yu imam malik taxawoon te ñoom taxawatuñ ca ndax seen jamono moo leen may ñu gis lu lu malik gisul woon ndax malik mënu ko woon a gis ci jamono bu dee l'imam abu xanif moom daanaka mujtahid muqayyad yi nekk ci ngërëm daanaka ñoo sos ngërëm na daanaka ñoo ko tabax lépp moom moom li mu xamoon wax Mouhamadou Ibn Hassan Abu Yusuf Yusuf daa Mouhamadou Ibn Hassan dafa jóge woon Iraq ñëw jàng ci imam Malik ba jàng Muwatta jàng Muwatta ba daan defar munazara ak limaamu Shafii nga xam ne kooku ci limaamu Abu Hanifa ci ngërëm la toog waaye daanaka ngirum Maalik yëpp wott na ko tey day seet foofu xam ne fii limaam Abu Xanifa dafa gisul woon xadis bi moom dafa war bu ko dikk ci xadis boobu bu ko defee bu ko waxee rek te nekk ci ngirum Abu Xanifa dañ naan ci ngirum Abu Xanifa la mu am nag ay masala yoo xam ne moom wuuteeg dégg la ñu kii yooyu mu doon misaal keroog bi ñuy tàmbali xalil bi yoo xam ne illa yi la ñuy wute nekk ci wër kaaba gi yoon yu njëkk yi te ko daw ñu gisee ko ne sallallahu alayhi wa sallam dafa déggoon waa Makka di ree maanaam muhaajiroon yi naan Madina jibu leen ña nga feebar ko xeex ak ñoom rey leen amuñu kàttan dégg nga ña nga jeex tàkk si buru ba baaxul ci ñoom pour wan leen ne leen am nañu doole bu ñu agsee rek bu ñu bu ñu dugg ci góoru kaaba gi rek di daal di daw seen ci yoon yu njëkk sawar sawar wane ne def xam nga kooku ñoom bu dee noonu du sunna luñ digle woon la ngir ay zuróof bu loolu passé léegi kenn yoon yu njëkk yi kenn waratu koy daw ci ñu gisee noonu d'après Abdullah ibn Abbas sunna la loola taxul woon kon yonent bi salaatu daf ko santaane rek pour ñu di ko def bu faaw waaw nga illa bi xam nga usul yoon yi itam ñoom nag illa la ñuy gën a seet xam nga anna al xukma yadur ma ak illati kayfa ma daara fa isan tafatil illatu intafa al xukma fa ida sabatat sabata li xaali loolu yeneen maanaam xilaaf yi xilaafaat yi mu indi ci biir mazahib yi nga xam ne usul yoon yi illaal dañu lépp dafa bëreetul koy seet dafa bëreetul wàññiku naa wàññi ko wàññi ko wàññi ko ulama yi sib nañu ndax ñun am si ñoom kenn ku ne topp leen mu waaye nag sib nañu ngay jéggat fu mu yombee rek nga topp ko fu mu yomb fu gën a yombee rek nga topp fu gën a yombee rek sa bopp ci diine la nag alfaqaanu mazaahib al arbaa man yaakaar naa ne ngir daal nizaam ordre daal fokk ñu def taqayut ci benn ngir bu mu doon ci ngir yi mu wóor la ne kenn koo ci àndal jub na ndax kenn ku ci nekk ci ay saxaab yi la ñuy jàng mu jaaree ci ay taajub kon bu ci nekk kenn ku ci nekk yëngata ni ñoom xel mi leen yàlla jox ak li ñu xam ci xam nga ñoom seen dund gépp dañ ko may xam-xam dañu fab seen dund jox ko xam-xam passé ci seen dund jëpp ci gëstu ak bu dëgg ngir yàlla loolu moo leen xamaloon yu bari yoo xam ne nitu ordinaire mënu ko xam
ñu koy li ñu ko doon man mooy nii tey ñu ko ci wàllu kii yooyu xam nga defe naa ne jamono ji nii li ci gën a am solo maanaam mu nit ki di xam ni julli mën a jaame waaye defe naa ñu koy mën seet nii koo xam ne gi dafa def taqay yu daanaka benn masal nii daanaka ci waaw loolu nag lu avant léegi yooyu waaw xaw na néew nag ba tey nag waaw ndaxte ulama yi ñooy wàññiku léegi ñu bari ndaxte di nga moderniste yi dañuy yàq lu bari ci lislam tax loolu foogaale yi indi boo xam ne day mujj rek nit ku nekk daanaka gëm ne mën naa dem ak xelam te du noonu ndax bala ngay spécialisé ci dara da nga koy jox xàqam da nga koy jox xàqam te boo ne yaa ngi def ijtihaad nga bala lu masala moo xam ne xadis la woon xadis bi wax na ko ba noppi foo nekk yow ci réer bu gën a rëy ndax yow bala ngay mën a def ijtihaad wër nga xadis yëpp ak yi ci foqaa yi waxoon ak fi ñu ko teg yëpp ba mu wër ni masala bi kenn mësu koo àtte loolu ay benn benn lay am mel ni ibnu taymiya mel ni limam alxasali mel ni ibnu qayyim aljawsiya mel ni muhammad ibnu xasan ñooñu daa nga xam ne dañu daan tekk borom ngir ñi dañuy raw gaa borom ngir ñi dañuy raw borom ngir ñi bari dañ koy raw lu bari ndax da gis ne seen jamono may na leen gis lu bari loo xam ne ñoom gisuñu ko woon et daañu bañ a ànd ak moom sax daañu dem bañ a ànd ak moom masalan léegi taqbilul yadi imam malik sib na ko waaye waxul ne sharia sib na ko moom moo ko sib ndax illa bopp nee na dafa lay indil ak rëy ak gis sa bopp loolu lay indil waaye ñi nekk ci ngërëm ñoom ñëpp wuute nañ cee moom lu tax dafa am atte yu sax yoo xam ne lu leer la limaam ahmadu mu hambal kenn gënu koo nekk maanaam xarfi maanaam littéraliste yu appliqué xam ne dañoo presque bañ taawil ci la waaye moom nee na bu fekkee ne ngëneelal àdduna la comme buur wala yooyu sib na sib na ko moom waaye bu dee ngëneelu loo yaakaar ci yàlla dara nekk ci parce que sidna abu ubayda amir ibnu jarah defal na ko sidna omar te xam ngeen sidna omar waaw faro yi daal jànqaru sadiq moom xam kan la ci toll ko maa ngi ci benn téere ñuy bind asalaatu inda madhabi jànqaru sadiq li nga li moom jàfar ci ñuy wax xam nga chia yi ay ay firaq yu bari la ñu am isna achari yoon yi dañu limaale limaamu jaafar sadiq ci aima yooyu nga xam ne fukk ak ñaar lañu fukk ak ñaareel bi fukk ak benn bi feeñ ne fukk ak ñaareel bi mooy al mahdiyul muntazar ñoom mooy al imaamul muntazar imaamu jaafar nag ku bari woon xam-xam la seulement chia yi dañoo dem ba mazhabu ahlu sunna bi seen fekk presque lépp ñu dindi ko ci far seen suñ ki fekk bopp loolu bi ñu koy def fekk na ku mel ne jaafar ak baaqir ak zeynul abidina ñoom ñëpp jóge nañu fi ñu def ko seen gannaaw ba noppi tëral ko nag tuddeel tudd jaar ko ci ñoom jaar ko ci ñoom loolu ñoom noonu la ñuy def waaye baaqir ak jaafar sadiq ak ñoom ñëpp ñoom nit sunna lañu woon nit sunna lañu woon am na ay xadis yu ñu solo nag nekk borom xam-xam yëpp cheikh yooyu nag dañoo dem ba ñu sof lu bari nee ñu xadis yu bari jullit ñi dañ ko gas suul ndax sopp imaamu ali dégg nga ñoom même alxuraan sax te kaalu bi sidna li bi ci loxo mu nga fekkeer boo demee ci ci armeelu sayidna xusin bopp ba fa ñu def bopp ba da nga koy gis kaalu tuuba kaamil yi ci des dara. kaamil.
li ñuy wax ci suratu suratu Yusuf sax di.
waaw waaw di ko waaw.
daanaka qissa xaraam yi.
xaraam yi am na sax ñu ko dàq ci alxuraan mais loolu kufur la kufurul suraax. benn aaya ci alxuraan ndax lépp ijmaa la. képp ku xotti ijmaa rek takfir sa takfir war na ku ne waxuma suratu Yusuf yëpp waaye benn aaya rek boo ko dàq ci alxuraan rek yëfal ko
maa ngi xam nga ci wàllu kii yooyu man am na ci keroog benn bi ma dégg yaakaar naa ne ko mën a yéen yor ñu ko dafa ci daal émission yi ñu def ci defa ne kàddu gi nag ko yaakaar naa moom daal xam nga ci wàllu asaka defa ne keroog dégg naa ci maanaam ñes wala ñes la moom kan daal te am na benn dana ci wax léegi am na benn kii bu wax sax boo xam ne xaw a daal parce que moom nee na ni ñu proposé asaka yi bay daal daanaka rek mooy comme rek maa ji rek xumus comme maa ji rek maanaam ñu génn xam nga loolu moom ko teg ne moom kay neen moom nag keroog nag moom dafa leer ndax nee na man loolu sama icteeru bopp waaye xam nga yooyu moom nag du mujj it mujj ay charte la waaw ndax xam nga ci muskile bi dëgg-dëgg xëy na moom icteer dina waaye day am benn boo xam ne moom alxuraan daan kap buntu ko xam nga waatu xaw yow ma xesaan yi loolu moom daanaka xaw na jeex na waaw ndax boo ko xoolee bu ne damay dëgg ca te alxuraan ne waatu xaw yow ma xesaan yi foofu moom xam nga li ma doon wax mooy loolu ma ne la nit ki mu nga def ijtihaad te peegul li ko jiitu ndax da nga fekk masal moo xam ne daanaka am na ijma wala fañ ko tëral dafay lu kenn mun la weddi yow yëguloo ko xamuloo ko nga daal di indi sa xalaatu bopp loolu kufru la dégg na waaye moom li mu wax ndax lu baax ndax moom dafa leer ne man daal loolu wax sama waaw wax na dëgg wax na dëgg loolu nag du jàpp xalaatu bopp la waaye jàppul keneen ñeneen ñi xëy na lu mel ne bu ñuy wax ñuy wax naan asaka wala muuru goro yi mën nañ ko jot ci xaalis d' accord ñooy teg nañ ko boo xam ne moom maqul la waaw wante zakat boobu نعم وإن استمتعت الله والمرأة بيت بيتهما ولا منفرد بمسجد كجماعة نكم بولا مو خامي لا حرج دي تيس عليهم امو امو اي بروبليم يو خامي مولين ورا كلير ولا مي داف بوب مقام بي توتي باخ نا من باي مقام من باي دي سي لا توتي ba beneen yoon bokk waaw nag gisaat amul ay laaj wala waaw ci wàllu kii اقدام نير اقتداء المامون بالامام فوفو يتم موم بو امول في يوم خمول ني ني جولي فاجي باخول ديدي ديدي daf ko boole ci ay soppee niyet waqtida bal imamu fi xawfin wa jamin jumatin mustaxlafi niyet waqtida maanaam ci mustaxlafi déet du tax julleem du tee julleem
بسم الله